bari euh, ci ki nga xam ne rek mooy góor gu euh, tedd googu miin ngeen Eye Africa TV euh, kóllëre gi nga xam ne am na ko ak ñi nga xam ne mooy kër googee loole yëpp nag tey jile dinañ ko indi waaye laata ñuy tàmbali dara damay joxo ki nga xam ne rek mooy sëriñ imam Abdoulaye cham mu daldi rek nuyo su ko defé rek ma daldi nuyo Serigne mustapha Kébé ya imam no ngi lay nuyo di bek lol ci ñëw gi nga ñëw fi ngir ñu fasiyene yéene gor gu bax gi fasiyene yéene gor gu nga xamne dafa bari won may tay jilé fi nga xamne rek modi ay Africa TV ya imam no ngi lay nuyo alhamdulilah rabbil alamin alhamdulillah ala ni'mati al ijaadi wal imdad ونعمة الانتساب إلى أمة المرحومية المحمدية بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بك جلد يونيسيتان في آي أفريكا تي في غناو بنيو سانتي بروم سبحانه وتعالى دي جلد سانغو سانغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan fii ci Gàmbi ak bitim réew ak fu waay mën a nekk ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen jaale di bokk li nga xam ne moom lañ bokk muy jant boobu nga xam ne moom la gar gar mi wax léegi mm-hmm. nga xam ne sona waaye fenkaat na mm-hmm. ndax fam fenkaate dañ ko gisam déet ñu ngi leen koy bokk jaale ñoo ko bokk naqar wi ñun waa Naylul Huda waa Gambia jullit yi addina bi yëpp ñu ngi leen di jaale Maulana Cheikh Alhaaji Saïd Omar Kebe yal yàlla yokk leeram fa mu nekk di ko jaale suñu bopp di ko jaale ñëpp rawatina Naylul Huda di ci jiital ci jaale bi nag xalifaam bu tedd boobu di Maulana Cheikh Basir Saïd Omar Kebe di ko ñaanal gudd fan lool ànd ak wér ak mboolem fu nit yi nekk di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa toogal fii ci palato bi suma xarit ma genn wala suma soppe de al imaamul akbar Cheikh Aboubacar di alimul allama di mufti fa tabarakallahu te wacce bopam lol te wax deug yàlla di borom xam-xam bo xamne foko wo mu wisi la te xam-xam lo soxla ci mom am ko ak ki nga xamne moñu dalal tay ci programme bu am solo bi di mohammed mbay Garmi fa tabarakallahu fi ci afrika macha allah sëñ Moustapha Kébé tey dañ leen di diktal benn li nga xam ne rek mooy vidéo daal di dellusiwaat tàmbali nag waxtaan ci nga xam ne rek moo di góor gu baax googu mbokk xel Eye Africa TV ñu dem te ñëwaat. Madinatul Anwar dootuñu ko fàtte ba mukk àddina dootu ko fàtte ba mukk waaye Afrique du ko fàtte ba mukk rawatina réewu Gambia du ko fàtte ba mukk ndax jant ba daan fenkee ca Madinatul Anwar sona xam nga lu ma doon taalibe Cheikh Kabir su ma su ma dee suñ defee ci bàmmeel bi Baye Seet Kebe di ku yàlla baaxal di ku nit ku yàlla tànn di nit ku yàlla màggal bawoon fi tey jii wuy ji boroomam nëbbatu na ba dem jàmbatul ba nu mu demee sonalul kenn ba nu mu demee dem na nag bàyyi fi ay rongañ yu dul fer ba mukk ndax na mu nañu ko ca keroog ba ñu ko gisulee ca gàmm ga ci jëmmam naam sax moo ngi fa woon ci baatin moom Baye Seyd Kébé mi ngi gane ci àdduna ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent maanaam 1949 ci dëkk bu ñu naan Bantanding wolof moom Baye kebe mu ngi woote gàmmu ngir màggal Seydina Muhammad ak i taalibeem ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn maanaam 1996 ci la wootee gàmm gu njëkk ca Wélingara Kombo. yaa ngi ñëw ci buntu kër gi ki nga soxlaan ci biir kër gi mooy boromu kër gi. waaye ci buntu kër gi fekk na karnaat baa ngi ci tege tëjeewuñ ko caabi karnaat lañ ko tëjee mu ngi ci koom yaa ngi koo gis léegi nga soxla borom kër gi naka ngaa def ba jot ko naka ngaa def ba jot ko te moom moo amee caabim toog biir néegam te yow yaa ngi ci bu néeg bi te karnaat baa ngi ci kaw naka ngeen def ah kom kom loolu tax góor ga ci teewa mu ne waqaar hiya baabal la laa iyaada bi lam yi fi li saaka sadaf naa naa hoo baabi ko wéccaati فانت كريم فالكريم من التجا الى بابي يمن على كل نعمه الله مالك من بمو وري بتي خمنا دارا دو سوتي لي ساك لولو تخ سرفنا ما سوبيكو تورني جاكار ليك سوبنتي دي فك رك نا مو وور من وخر يا باب الخير فك بنتو كنن يا ربي يو سما بروم لم يفير دوما جيري دارا ما باك طالبي فككو مبوكي فككو غير ماغال جيم رسول الله مو فاي وقتاني وقتان يو ام سولو وقتان ورول ген ci yàlla nee na ak yonent bi nee na moom Baye Set Kebe mu nga tuxu ca Banyanka 2006 ci atum ñaari junneeg juróom-ñaar te gàmm bu njëkk foofee di madinatul anwaar ca Banyanka. dégg naa Cheikh Tidiane Sy Moriel mu ne ko bëgg nelaw da ngaa ba dugg ci bàmmeel moom kenn tëddal rek bala yeewooti mu ne boo duggee ci bàmmeel tëddal da nelaw rek amul yeew xam kenn du ñëw ne la yee eh, jógal nelaw bëri na parce que nekkoo fa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nit bu faatoo boo taxawee ci bàmmeel bi nuyu ko mu fay la fa ruu ga ne taalibe yi fekki waat ko ca nañu ko fekke woon ca Kombo Wellingara ca gàmm gu njëkk ga ci atum 1996 moom Baye Set Kébé lu mu def ci lu baax ay xar baaxam mënee su koo lim ndax dafa bari ba jaaxal ñépp ay jëfam yu yiw mënee su koo lim ndax dafa bari ba jaaxal ñépp moom Baye Set Kébé lu mu defar ci ay nit lu mu wàllu ci ay nit lu mu génne ci ay nit ci jëf yu bon dugal leen ci lu baax lu mu xotti ay nit seen dënn def ci xam-xam tàggat na ay ndaw ci baatin tàggat na ay ndaw ci xam-xam tàggat na ay ndaw ci yaru ak topp yàlla nañ jox cër kilifa yi suñ ñaanee rek mu nangu waaye bu leen sonlee mer loo leen jël seen alal ji ko da dañoo tukki dem da leen fontoo dara doo ko fa am yàlla ñàkkul fu moom Baye seet Kébé lépp la doon defal nit ñi ci taalibe yi ci jullit ñi ci képp koo xam ne doomu aadama ndax moom ñëpp la daal di rek yemale xàmmewul woon dërëm ndax ngërëm moo ko ko gënaloon xàmmewul woon ku yor ak ku yorul ndax moom ñëpp la yemale fa yàlla xale yu góor yi ngeen am soxla furteeku wu leen liggéey ne da ngeen a mere seen yaay da ngeen lan nab si lañ ko waxam luy loolu lu moo firi ah boo bëggee dara nga wuuti ko tey ji bis bi kenn dootu ko fàtte ci àdduna rawatina ñi yeewoo ci réewum Gambie ndax ñàkk nañ ab guy gu mag ndax jant ba daan fenk moo so tey ci àjjuma ji fukki fan ak ñeent ci weeru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar dat bile képp kuy jullit képp kuy doomu aadama te di yeewoo fii ci Gambie dootoo ko fàtte ndax ci lañu ñàkk ki gënoon ci ñun ci lañu ñàkk kilifa gu mag ma jàng ci alxuraan ba yàlla dimbale ma daje Cheikh Abdou Kadir mu imbil ma lañ ca may wax ak yéen la ma leen a wax toujours mooy santuma kenn nga ñàkk a jaamu yàlla santuma kenn nga fontoo sa kilifa santuma kenn nga tooñ kenn wala nga bañ kenn koo gis mu baax xamal ne ki baaxal sa waajee ko baaxal kilifa guñ la tudd nangul ko nga nangu mbaaxam waaye boo ne da ngaa weddi kilifa koo xam ne moo man sa sëriñ foo jéem a xalaku rek. Mouhamed Mbaye Garmi Eye Africa TV. mi ngoog kookooy góor gu baax gi. sëriñ imaam Abdoulaye Thiam kan mooy Baye Cheikh Oumar Kébé laaj naa la lu jafe tontu ndax góor gi ma ne su ko xam ba mu jeex waaye xëy na nga nab nabi ci li nga jot xam ci moom nga nettali ñu kan mooy ki nga xam ne moom la àddina ñàkk mu doon kenn gu am solo ci àdduna bi. alhamdulilah Modou Mbaye <coughs> ñu ngi lay jaale di la wax ne. Eh, laaj nga lu am solo laaj nga lu jafe waxtaan tamit laaj nga lu neex a waxtaan Cheikh Oumar Saïd Kébé pour waxtaanee ko jafe na waaye jafewul ndaxte buñ la waxee fooy dem rek nga ne maa ngi dem ci géej bi géej lu mu ëmba bari na ëmba na ay jën omba na ay urus omba na lu bëri kon nag waaye boo waxee ne maa ngi dem si géej gi rek yaa xam lii la fa yóbbu imma da dem sangu mm-hmm. wala da ngay dem naan wala da ngay dem nappi ji wala da ngay dem def leneen ak leneen comme Cheikh Omar Saïd Kébé buñ la waxee nga waxtaanee ko rek mm-hmm. waxal ne ku baax la baax am solo mm-hmm. yeneen yàlla yëpp. tur yoyu amna na yenenti yàlla amna nabiyullah amna waliyu amna na amna samadani amna samadaani kanzul awliya amna way ñom ñep lu ñoo ñaan yàlla yal na len yàlla ci as-salihin même yusuf alayhi salam yuusufa don na bour don ko rafet don bour bi nga xamantene yàlla may ko tamit mu don yenenti yàlla waye lum ñaan yàlla wa alhiqni bis-salihin manam moom ak lum nekk yenenti yàlla yëpp lenn la ñaan yàlla mooy yàlla may ma ma bokk ak ñu ñu baax ñi wa alxiqnii boole ma man yàlla boole ma man yuusufa min asaalihina yàlla boole ma ak si ñu baax ñi kon nag kooku doon na yenenti yàlla doon na buur doon na doon na doon ak lépp lum dool ñaanu dara yàlla lu dul yal na ma yàlla boole ak saalihina kon Cheikh Omar Saïd Kébé soo ko buggee waxtaan mooy xutbu zamaan mooy waliyul awliya mooy lii mooy lii dangay ngay sonn waaye wax rek ku baax la te gis nga baax baatu saalixu baati saalixu boo jëlee baatu saalixu hmm. boo ko xisaabee dangay ngay am 99 araf 99 araf yooyu hmm. ñoo bi ma ana méngoo ak tur yàlla yi ngay dégg 99 names of Allah hmm. kon saalixu moom lañ jara bi maanaam mandarga yi Cheikh Oumar Saïd Kébé ku baax la saalihu buñ ko waxee moom boo gisee ñun ñu topp ko mhm. saalihu googu Cheikh Oumar Kébé bu ñu waxee kan la mhm. seetal rek ñu ko topp bu ñu waxee diw diw diw diw xoolal ñi ko topp rek mhm. loolu doy na firnde loolu doy na jàngale waa ji ku mu doon ñu ko topp fii si Gambia Europe Amérique borom xam-xam borom aleel ñu ko toppa amul lenn luñ ko toppee lu dul mbaax bu nekkoon si moom mbaax bu nekkoon si moom si yarin di yar jaam yàllay xam-xam bu nekkoon si moom di ko may jaam yàlla ak secret sir yàlla bi maanaa secret yàlla yi mu amoon di ko jàppale jaam yàllay te aka moo jafe si jamono bi tey sëriñ yu bëri am nañ secret waaye secret yu ñu am ñuñ koo dencal mooy seen njaboot waaye Cheikh Omar Saïd Kébé melu noona moom lépp lu ko yàlla dénkoon lépp lum liggéey ba yàlla may ko ko si góor yàlla yi mu dal di ko am yéene na ko mboolem jaamu yàlla yi moo tax ne taalibe booy ut sëriñ utal ku baax Cheikh Omar Saïd Kébé nag ku baax la lépp lum am mhm. yéene na ko jaam yàlla yi kooku du musa dee kooku du musa dee borom xam mu ne mu ne qad maata qawmun wa ma maatat fadailuhum mu ne bari nañu dee waaye seen ngeneel du musa dee qad maata qawmun wa ma maata fadailuhum mu ne ila abadil abadina comme ñooñ si ñooñ nag Cheikh Omar Saïd Kébé te arif billahi du am na benn borom xam mu ne wadawul basairi fi lxayaati wa in fanaw wal xumru mafqudun wa in lam yufqadi mu ne borom borom basira yi borom basira yi borom basira yi comme ñu yàlla may basira mooy ñu am yeneen bot yi fekkee du bot yi rek gis nga bot yi nga toogee nii yow Modou Mbaye yaa ngi toog fii si ay Africa TV waaye bot yi ngay xoolee sa néeg yi ngay xoolee sa lal bi nu mu nekkee bot yooyu du yii waaye képp ku yàlla baaxee bot yooya ñooñu duñ mus a dee comme Cheikh Omar Kay Cheikh Omar Saïd Kébé du musa dee ala kulli haalin kon foofu rek lañ mun a tàmbale mhm. suñu waxee ñu wax tur bi loolu jàngale la Cheikh Saïd jàngale la santam jàngale la nu mu jar jàngale la mhm. lépp jàngale la ala kulli haalin loolu nañ ci dikk incha allah rabbi imaam incha allah euh, baax du baax ba weesu baax waaye bàyyi Cheikh Kébé moo xotti baax soo doon wax ci tabeem gi ndax kii junj na ko sànq ku tabe la woon tabe ci xam-xam euh, tabe it ci li gën a jafe mooy ci alalam euh, lan nga ñuy nettali ci ci moom ci wàllu woowu ndax tey dañ bëgg a waxtaanee euh, góor gi ndax daaw waxal boppam waaye dinañ am tey chance si ngeen xellil ñu as ci li nga xam ne mooy màngasinu mbaaxam moom góor googu tabeem gi lan la woon. ci xam-xam euh, ci alalam. Euh, jërëjëf Garmi jërëjëf al imaamul akbar fa tabarakallahu li nga wax bu ñu bu ñu la bu ñu laajtee kan mooy Mawlana Cheikh Seydou Oumar Kébé mi fi jógee démb nga ne mënuñoo wax ci moom lu paase mbaax foofu rek la ñuy ñëwaat gis nga Garmi bi nga waxee ne baax. Mhm. moo ëmb jikko boobu suñu borom bi subhanahu wa taala yónni 124000 prophètes téméri junne ak ñaar fukki junne ak ñeenti junney prophètes lim leen yónnee du dara innama buistu li utammima makaarimul axlaaq makaarimul axlaaq mooy jikko bu rafet loolu la yàlla sedd góor gi macha allah jikko bu rafet nag bu xasee am borom dana yiw borom dana tabe borom niti jamm lay doon dana mana defer jami yalla yi dina mana and ak ku te du yene kenn lu bon lolou boko topé dana bari lolou mo nekkon ci Mawlana Cheikh Seydou Marke bi muy nit ko xamne tay tey ci plateau ay Africa TV suñ bëggoon di wax ci ay mbaxam di wax ci tabem ba weer wi delu ci déwén. duñu ñu duñu xajal ñu yi Mawlana Cheikh Seydou Marke mooy koo xam ne amul kont banque compte banque amu ko amul arankees bu muy dencee ci biir këram xaalis lim am lan la mooy poosam Maolana Cheikh seet ànd nañ maag moom dem ku njang gi ci benn dëcc nit ñi wër ko di ko ziyaar ku ñëw rek jox ko dara loo ko jox du àgg ci poos bi dafay wëlbati ko jox ko keneen kenn ci taalibey Naylul daay xam naa ne minute loolu nag minute nag di ànd ak Mawlana Cheikh Sayid moo mu woo ma xëcc suma loxo ba ma génn mu ne ma doo wax ak sëriñ bi limu liñ koy jox mu di la ko jox nga téye ma ne ko yow xaj na góor gi gan la ci yow ndekete sëriñ baa ngi dégg li ñu wax. macha mu ne ma Moustapha waxal ma diw moomu ne ko ndax li ñu indi li may jox nii ndax su ma ko téye du ma ko joxewaat ndax su ma ko joxee waatu wut ndax man dana ma jik mhm. kon li ma jaam yàlla yi di jox bëgg ci mbaax ba tax ñi di ma ko jox di ma ko ziyaara mhm. kon ñoom duñ ma gën a baax man tam luñ ma jox ma joxewaat ko ngir ma ut ci yàlla loolu mooy tabe gi loolu mooy tabe macha tabeem gi nit mën na koo départ di ca wax waaye mënu laay am tabeem di ko natt démb bi ñu ko jëlee ba dellu jébbal ko boromam mhm. fa tabaarakallaahu dama tiim bàmmeel bi ba yàgg ma ne kii bu ñu doon wax tabe tey denc nañ ko ci biir suuf si waaye nag tabe gi nga xam ne moo nekk ci moom loolu da def ci imaam Thiam. macha allah loolu loolu loolu mooy tabe nga baal ma imaam euh, mm-hmm. sëñ Moustapha. Mm-hmm. xam nga wax nga ma tabe euh, ci wàllu euh, xam ci wàllu. xaalis léegi nañ ñëw tabe ci wàllu xam-xam nga may junju tey jii sëñ bi dëdd nañu ci ci ci jaahir waaw Euh, waaye bari na ñum tabax. Mhm. bari na ñum defar. waaw ndax tey jii euh, vidéo bi ñu doon déglu sànq rek. Mhm. Euh, ñu ngi ciy wax bari na ñum tabax ñoo xam ne defar na leen ci jukko defar leen ci xam-xam loolu it ku tabewul du ko def. ci boobu laa bëgg nga dikkal ma. xam nga gar mi tabe bi gën a jafe ci tabe yi. Mhm. nit mën na tabe ci alal nit mën na tabe ci xam-xam ci ci xam waaye tabe ci daraja. macha boobu moo gën a jafe. te na seex sey noonu la loolu ci la gën a tabe. mu ne lépp loo xam ne mooy daraja wala muy alal xëccawut ko kenn te noonu la doon yaree taalibe yi nga xam ne ñoom la doon tarbiya bépp taalibe boo xam ne taalibe Mawlana Cheikh Seyd Omar Kebe la ci moom la jokk mbaa nga jokk ci ku jokk ci Mawlana Cheikh Seyd soo fa demee ñaar yi ci la gën a tabe muy daraja muy alal soxla wuñ ci dara parce que lu lu tax loolu am dafa am loo xam ne moom la def ci ñun xamal ñi zahir xamal ñi baatin nit koo xam ne boo xoolee ndeyjoor xàmmee li ci sa ndeyjoor xool càmmoñ xàmmee li ci sa càmmoñ xool li ci kaw nga xàmmee ko xool li ci suuf nga xàmmee ko su boobaa yow di nga mën a tabe ci daraja waaye ki nga xam ne xàmmeegul ndeyjooram ak càmmoñam mm-hmm. kooku dafay jàpp ne moom daraja daf koy xëccoo ci nit ñi yaakaar ne daf ko war a am te daraja wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yashaau mm-hmm. yàllaa ko téyel boppam ku ko neex la koy jox te man tawaadaa rafaahu llahu loolu la Mawlana Cheikh Seydi jàngale mu ne képp ku wàccee sa bopp rek aji yëkkati ji mhm. ki nga xam ne mooy aji maye ji mhm. mooy aji dogal ji nga xam ne mooy rabu samawati wal ardi boo wàccee sa bopp moom mu yëkkati la te yàlla ku mu yëkkati kenn mënatu laay daane mhm. kon góor gi dafa wàccee boppam yàlla yëkkati ko loolu la def ci ay njabootam njaboot gu mu yar rek da ngay fekk njabootam wàccee boppam ba ci suuf ndax wàccee sa bopp ci suuf tabe ci daraja li tax neex soko defé di nga mëna and ak ku né garmi waye képp bép nitu yalla wala ku ñu tuddé nitu yalla wala nga né sëriñ la nga fekk mu jël daraja boot ko bokk ko yenu ko ñu bari na leen romb du leen mëna a parce que da nga fekk waju ju lool yore ay sagar bo wacce sa bop ko ko do mëna wax ak mom ba di ko ba di ko da nga fekk waju ñak lool ci al walu am-am mhm. waju ñak lool wér-gi-yaram faaw nga wacce sa bop nga mën ko ci misaal rek waa jooju ñuy tuddee dof ci mbedd yi nga xam ne colinam du rafet yéreem yaramam yi du du du set na mu war a setee dana ànd ak beneen xeet bu bokkut ak li nit ñi di xeeñ la ñuy tuddee dàll du ko sol mbaa dafay sol dàll yu xaw a doy waar Mawlana Cheikh Seyd moo daan dox ba fekk benn ci mbedd mi mu ñëw jël loxoom bu tedd bi macha allah fa jox la ko jox la loxo pare dal di làmb ci poosam bi yëkkati lim laa jox mu jox la ko soo yëkkatee dara dof bi su ñëwee yëkkati dara maa ngi jégalu ci kàddu gi ñu mm, tuddee dof mm, mm. waaye waxin la waaw ku ñu tuddee dof bu yëkkatee dara ñëw jox ko Mawlana Cheikh Seydi mbaa mu ñaan ko dara rek dafay dal di yëkkati lam koy may may ko su ko defee li ko dof bi jox daf koy jël téye ko ak loxoom bu tedd bi du seet fa mu jógee sel tilim na wala set na benn exemple laa ciy joxe ci lon londonkoo na fii benn waay moo waaxu ñëw ba yegg si ak ci sagaram wallahi la mooy xëñ sax neexul mu ñëw ne ana kumaay may dalasi ma dem jëndi kaana dalasi sëriñ bi may ma dalasi ma jëndi kaana sëriñ bi daal di làmb ci poosam génnee xaalis may ko fekk am na benn kilifa gu ñëwoon seet si ko gu jokk ci geneen kër dégg yàgg naa dégg sang bi mu ñëw di ko seet si tombeeg loolu di borom xam-xam nag ko dem mu ne ko ah sëriñ Saïd maa ngi lay dégg de waaye ni nga def nii de xaw na doy waar de kii hmm. kaana la wax lay jëndi de te kaana xanaa xamuloo ne kaana mooy lu ñuy mandee sang bi ne ko aha kañ mu ne ko waa sëñ bi hmm. alquran dafa am lum ñu wax wala taawanu alal ismi bu leen di ah, bu leen dimbalante ci luy indi bàkkaar hmm. te sàngara dafa da baaxul dafa xaraam naan ko day indi bàkkaar kon taawanu alal biri lañ soxla nañ dimbalante ci luy def indi mbax di jur mbax sëñ bi tontu ko lan. señ bi ne ko ah gor gi alquran nak bàyyi ken momuko mami ken momuko sen lolou waxam la. mu ne ko fenen ci alquran mu ne laysa ala almarid harajun xarajun. macha allah ki nga xamne dafa febar ba taggo xilam kooku yàlla tegatu ko bakar bu nané sàngar amu ci bakar te xana xamulone 5 dollars sax jarut kana kana dafa cher. billahi dëgg kon ki bu andon ak sagom mel nam wara mel ndax dana ñëw indi ñandalasi ndax sa yaram sa yaram daw ci kii ni mel ni nii te na la wóor ne kii fukki xarafi laa ilaha ak ñaar yi la bindee góor gi hmm. bindee ma ko man Saïd Kébé loolu lañ bindee waa ji macha allah kon boo ko sibee laa ilaha illallah nga sib macha allah kookoy Mawlana Cheikh Saïd Kébé mi ngi noonu nañ ci euh, seetaan ay Africa TV tey jilee ñu ngi file digtal leen programme bu am solo ngir waxtaanee euh, góor gi nga xam ne rek mooy Cheikh euh, Oumar euh, kebe moom mi nga xam ne rek moo daal di rek dëddu ci Zaire moom mi nga xam ne mooy rek borom dëkk bu sell boobee di Madinatul Anwar tey jile moom lañ nara a waxtaanee naam dina metti waaye dinañ ci jéem ak rek góor yu baax yi nga xam ne bokk nañ ci ñi daan nekk ci keppaaram te rek mu bokk ci ñu mu defer ngir rek ñu mën a waxtaanee ak moom ci lool rek naa leen digtal benn rek vidéo ñu dellusiwaat ndax loolu it day wax wane woyofam gi te dinañ ko jiis ci vidéo bi lee moom mu koy jàngale ñu dem te ñëwaat. Cerno ah, Amadou bàyyi ko mbir kaama Cerno Ñang bàyyi ko mbir kaama ñoom ñëpp ñëw fekkeeli suñu gàmmu gi ndir Cheikh Ali Diab mii nga xam ne ñoo bokk daara ji ñi ci des nag fu waay bàyyi ko rek gis nañ la siyaar nañ ñëpp dalal na ñëpp yaatal na ñëpp Baye Dame tey moom xam naa danga dellu ci ngune si taalibe gis naa ne nangoo toog ci basan yaa ngi toog fii rek boo ba tey yaa ngi toog ci suuf moo tax àddina de foog naa doon na wax ci bëccëg ci ngoon ah. <laughs> daam Aliou baaxul mbokk yi mu ngi mel ni gàmmo gi dama dale ci suma bopp li li tax yàlla dogal ci mbaaxam dama puus jàngaloo ma ma dem jàng mu ubbi suma xel mi ma xam tuuti mu dimbale ma li ma xamit ma xammee ko tuuti yàlla dama windeel may dox ba ma Cheikh Mamadou Kabir Bari mu def lim def ci man loolu maa ngi cee gërëm woy jur wi kon su ma waxee ne ñi ne nañ toppatoo wayjur yi man mi ko wax maa leen ci jiitu Omar be dem na lu ne daj naa ko ci moon juróom-ñaari at la feebar feebaru sukar juróom-ñaari ba ca la faatu su may yaayang fa su may rakkang fa su ma tukkiwut kenn du ko utali soow mi moo ndékkee man rek te maay jiitu ci tool yi itam su ma dalewut ci suma bopp li ma wax duñ ko nangoo déglu am na at moo xam ne it ngoon rekk laay dem suma tool xëy yëpp dama ko ko utali garab waaye bu nawet bi wàccee ma daan góor ñi ñaar fukki mbaam ak juróom wala juróom ñaar te denc jiw te kenn baylewul ma man kenn la may dund ak moom ci dundin bu jafe waaye yàlla not ma ba mel ni yëguma ne dara metti na la tool ni bi ëlwi tegee rajo beeg léegi du ko toog xooxun ma ba mu jigi ku ñuy wax Moussa Ndiaye nekkoon kat alaaj Ousmane Diop bàyyi Jim Diop daf ko ne Omar Kébé defaral toogu nga teg ko ci sa pegg gannaaw yow doo am ñaari minute waxoo seen mu ne ko lu ci sa yoon mu faatu ci yàlla dénk ma ngërëmam jim toog da rakkam maag moom mu faatu balaa moo faatu mu ne seet de su ma dundoon it su ma doom yi duñ ma mënal lim ma mënal koo kaay rakk ja seen mag ñoom ñoppit nekkoon sàmmanoo so de tafsir njaga saar ñëpp xam ko ci mbaax yàlla defoon maak moom ni kon su ma digalee nit ñi topp leen seen kilifa yi xam naa ca dara balaa ngay diglee sangu na nga fekk nga set loolu lay jàngale fii euh, dafay delloo euh, taalibe yi ndaw ñi ngir ñuy fonk way jur yi waaye moom def ko digle wane ko ndax mi ngi lay nettali moom a góoram gu baax ga te nam ko tarbuyee ba keroog kookee di dem wuy ci boromam euh, boo ñu doon euh, waxtaanal jàngatal vidéo bi nga seetaan méngale koog jamono ak xale yi ndawu tey ak moom lam ci daan jàngale lan nga ñuy wax. alhamdulillah Cheikh Omar Ka comme ni ko Moustapha Mm. waaw su ko su ko defee nga nga nga nga baal ñu euh, ma ma dikk ak yow comme ci noonu euh, balaa ngay euh, digle sangaay mm-hmm. na fekk nga set mm, seex bi lim daan digle muy topp wayjur yi moom def ko njëkk a def mm-hmm. ci rek moom a góoram gu baax googu mm-hmm. ci ko tarbiya ndax mi koy nettali ci tawatee woon ci juróom-benn at ba ci juróom-ñaareelu at bi mu wuy ji boromam lépp moom moo ko daan defal lépp tey jii boo ñu ko doon méngaleel ak jamono ak ci yar xale yi ak moom nam ci daan taxawee lan nga ñuy wax li may wax rek mooy moom noonu la yare yaroo te noonu lay yare bañ na ko ba daana wax mu ne képp ku ñëw ci moom war a sukk mu tarbiya la ngay xale ndaw lam laa njëkk a wax mbaa juboo nga ak say ñaari wajur buñ d'accordul de mënuma la defar lu sëriñ baax baax baax loola yàlla may may may mm-hmm. ndaw li nga xam ne dafa juyoo ak ñaari way juram ñëw ci sëriñ sukk pour nga defar ko mm-hmm. du yomb de su dee dana defaru kon jamono bu fekkee ne ku mel nii yàlla séddoon na ko Gambia ci jamono mm-hmm. tey mbay ci sa wewu tànk li ñuy war rek mooy nañ roy ci moom sang bu tedd bi jóge fi nañ roy ci ay muqaddamam nañ roy ci njabootam ndax loolu la nampatal njabootam yi su ko defee kon da gis ne e, jàngalem lépp dafa tegu ci alquran ak sunna jàngaleem lépp dafa tegu ci loo xam ne nii du lor kenn kenn ku ne da nga gis sa bopp ndax nit bu fekkee da nga jël mu nekk ñëw nekk sa taalibe nga fexe ba kenn ci way juram yi nga dëddale ko ak moom uhuh. kon su boobaa dafa mel ni yow way jur woowa du la bëgg ndax yaa ngi ànd ak doomam ba pare. Mhm. bañ loo ko ko moom kon kooka du la bëgg ku kuy xaritu jur ba du la bëgg kon loola dafay ñëw féewale xeet bi te luy féewale xeet ba ñu Mawlana Cheikh Seyd bokkut ci moom bokkut ci njabootam. Mhm. moom daal lam jàngale mooy bennoo lam jàngale mooy jub. Mhm. lam jàngale loolu yëpp balaa mooy balaa mooy am. na njëkk a ko ci ci mbay daf koo jëfee ba noppi mbay ci sa wew tànk mooy ñi dooree ko ci suñu suñuy wayjur macha allah bu ñu ko dooree su suñuy wayjur nag mhm. su boobaa wayjur bu ñu gimmee rek lam ñuy jox rek mooy demal ca imaam Abu Caam muy tarbiya la soo fa demee bu la tarbiyaat dafay yomb lool ci tarbiyaam mhm. moom góor gi dafay wax mu ne képp kuy jàngale bëgg nga taalibe bu neex xel mhm. ndax taalibe bu neex xel dafay sawarloo sëriñ daara daf lay e, jox la cawarte cawarte pour nga mën koo jàngal ndax lan yaa ngi gis ay résultats yu baax ci li ngay def muy ci ku neex xel kooku kon ndaw yi nañ dooree ci seeni way jur bala ñuy dem ci uti alal bala ñooy uti sëriñ nañ dooree ci seen i wayjur mm-hmm. bala ñoo wuti xam-xam ci school si ci daara yi nañ mm-hmm. dooree ci seeni way wayjur nañ dooree ci i lépp daal mbay ci sa wéy tànk dafa jeexal lépp mi ngi noonu euh, dinaa dikkaat ci euh, yaay maam euh, nangu maanaam moom li mu doon wane mooy ku nangu ndax bi mu lay nettali moom a góoram gu baax googu dafa suufe woon ci moom nangu woon ci moom ndax mi ngi lay wax ne la moo ko daan bayal naam sax dina daan bayal boppam waaye balaay bay dem ci toolam daan dem xëyali sëriñam ba noppi doo ko dem gontal boppam. waaw dara nangu googu sëriñ bi léppam jàngate la léppam jàngale la te boo gisee nit ñi nangul ko dafa nangu mm-hmm. dangay ngay nangul sa waajur yi dangay ngay nangul sa kilifa jaami yàlla yi man laa nangul moo tax ne olof ñaa ñu ne lépp too faytoo boo gisee jaami yàlla yi mun koo nangul. dafa nangul waajuram lépp lu moo def du def dara tànka jiitalul waajuram waajuram bu zaahir bi ak bu baatin bi yëpp si waxtaanam da ngay dégg lu moo waxtaan diggante mu ak sëriñam du bëri kon nag moom dafa njëkk nangu moo tax ne nangu googu yàlla may ko jaam yàlla ay nangul ko kenn mënu si dara kenn mënu si dara. Mhm. lu mu nangu. Mhm. loolu la ko yàlla fay si jaam yàlla ñëpp a koy nangul. looloo yi tax mu koy mu koy digal. loolu moo euh, tax tamit nit ñi dofuñ. Mhm. nit ñi tey. kenn doful buñ ñëwoon si góor gi ñu fekkente ne góor gi nanguut waajuram yi kenn du ko nangul. waaye boo gisee ñu ànd ak moom fonk ko toppa ko dafa fonk waajuram fonk jaami yàlla yi fonk fonk sëriñam moo tax ne nit ñi fonk ko taalibe yi fonk ko macha allah képp ku topp man it tabaa tubiya boo toppee rek ñu toppa mhm. boo fonkee ñu fonk la mhm. lépp too fii fayuto fale góor gi si gàttal mhm. benn xadis moo ñëw suma xel léegi suñu yaay ay saxaaba yi dañ defoon groupe ñu ñëw ñu ne ñun ñëpp xam nañ yenent bi waaye xam nañ ne suñ suñu ay Aïcha moo ñu gën a xam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nañ dem si yaay Aïcha ñu laaj ko kan mooy yenent bi xam nga tey ñoom Ababacar ñoom Umar ñoom Ousmane ñëpp a xam yenent bi waaye xam yi dañ ute mhm. xam yi dañ ute léegi nag buñ demee si yaay Aïcha ñu laaj ko ñu ne ko si fii lana rasulallahi sallallahu alayhi ñu ne ko comme nettali ñu kam mooy yenent bi mhm. mu ne wallahi huwa quraanun yamshi mhm. mu ne leen yenent bi de mooy quraan buy dox aha mooy quraan buy dox ndaxte lépp lu quraan digle mu ngi si yenent bi sala la def ko digle def ko defe pare digle ko loolu nag quraan googu nag mooy Cheikh Saïd Omar Kébé si wàllu yarin si wàllu jikko si wàllu xam-xam si wàllu tabe si wàllu oyof quraan mu ngay jàngale lu boo gisee nit ñi mën a oyof quraan moo ko jàngale hmm. boo gisee ñu baax quraan moo ko jàngale boo gisee ñuy def jaam yàlla quraan kon nag seen seen Cheikh Saïd Omar Kébé hmm. moom mooy quraan buy dox macha góor gi feesoon dell ci ay xar baax feesoon dell ci xam-xam feesoon dell ci lépp loo xam ne ñi nga xam ne ñooy borom daraja yi làmboo nañ ko moom daf ko tëxañ téye waaye mu wàcce woon boppam woyefoon suufe woon loolu ba boo ko gisee euh, nga baal ma ci kàddu gi ci ci boo xamul nit danga naan <laughs> kii xamul dara da may da may baal waaye moom moo ko wane woon te fekk ku feesoon dell la loolu yi les la ci mën a jàngee comme xam nga góor gi. bu fekkante ne eh, tiitaro moom yelloo na pour tiitaro. te daawu tiito. ma ne la. góor gi lu am si taalibe Gambia fii. kenn amul ko waaye xoolal déddu mu dem baañaka fale si àll bi. tey su waxoon taalibe yi Banjul laa bëggoon kër wallaay dafa am dafa dafa am Banjul fi kër waaye mu sànni loolu yëpp dem baañaka si àll gi pour lan mën a jaamu yàlla. pour lan mën a daw nit ñi waaye pour lan mën a nobbatu nit ñi pour lan mën a mën a bi maanaa mën a nobba boppam nit ñi pour bu ñu xam baaxam waaye yàlla moo ko baaxal rek dafay dafay feeñ feeñ rek. gis nga boo demee Bañaaka. boo gisee jumaa bu mu sampa. nga gis këram bi lan ngay xalaat. wallahi tey góoru yàlla yu bari balaa ñuy sampa jumaa dañ sampa étage yu bari dañ sampa étage ba pare dañ sampa seen étage defal lu ne. waaye mom neegi yalla bi moko ko solo moko amal solo lo rek ngay jàngee ne góor gi qur'an la qur'an buy dox la buy dox la buñ waxe mom num soufele bopam hmm gis nga am am day soppi jikko mm-hmm. xam-xam day soppi jikko daraja day soppi jikko li yeb yalla may na ko Seex Umar Kabir mm-hmm. Seex Seydou Umar am am amna am xam-xam amna daraja mm-hmm. waye outewul teewul mu tok rek ku soufel maka la maqama bu mu am tay góor yalla yu bari yu ko amone dew nañ be cheytaan yàqaleen suleyman bi ngay dega yenent yalla suleyman alayhi salam mom bok na si bour yu yalla may ñu elif aduna bi yep ñenti bour la ñaari julit ñaari yefer ñom ñeenti ku nek elif na aduna bi yep min mashariqi ila al magharibi Souleymane bokkoon na si Souleymane mhm. moo élif junne yi jinne yi da ngay gis jinne yi toog mu ne leen def leen lii def leen lii def leen ñu def ko waaye amoon na benn jamono Souleymane jinne yi dañ ko ekkati ak ngelaw mu dem ba si kaw asamaan bi mu gis boppam na mu gis boppam mhm. parce que ni mu gis ne man man rek la yàlla may nguur gi di dem ba si kaw asamaan bi ngelaw bi di la di yóbbu fu la ne mhm. fu la fu la neex après mu commencé di yëg boppam bu mu commencé di yéeg ngelaw bi si boppam daala um, bugga ngelaw mu ne ko ba nga jub laa astaqim hatta tastaqim jubalal sa borom ba pare jubalal sa borom sa xol bi nga am jubal ko si sa borom nga xam ne ne lii yàlla moo la ko may bul def nii soo jubee rek ñu jub boo jubul rek ñu daaneel la boo gisee Cheikh Omar Kay bi kenn déggalul ko si Gambia dara ku dul ko bon amul loo dégg si moom lu dul lu baax ak at yu mu am yëpp ak taalibe yu mu am yëpp kenn mënul ko joxoñ baaraam lu dul kii ku baax lu dul kii ku baax la kon loolu boo gisee mu am ko ba tey yàlla jël ko kon dafa jub kocc la def. Euh, euh, baatin euh, ci kanam ci ñaareelu pàcc bi nañu ubbi bu mu jokkoo gi yéen ngeen mën a dugg xam naa ne sax ngeen dugg indi seen seede ci rek góor gu baax googee moo tax woykat bi waxoon ko nii soxlawul woon dërëm ndax gërëm ak ngërëm moo ko ko jitteeloo ak am amu àdduna ji yëpp taalibe li koy jox yëpp gis ko woon xamu ko woon moom li xamoon mooy ni muy fexee ba taalibe yi xam seen bopp dëgg la euh, jërëjëf garmi <coughs> jëf al imam moom Maulana Cheikh Seydou Omar Kébé li ko yitteeloon ca ndaw ba nim fi jóge du dara lu dëgg taxaw dëgg nag suñ bëgg a laajte luy dëgg bëgg a xam lan mooy dëgg alxaq huwa allah allah huwa alxaq dëgg mooy yàlla yàlla mooy kan yàlla mooy dëgg moom nag la wéykat ba wax dafa judd rek daa xëy rek nekk ca fa tabaarakallahu ndax xarbaax yi Mawlana Cheikh Seydou Mar Kébé doy na ci Mawlana Cheikh Seydou Mar Kébé juddoo ci famille boo xam ne du dañ naan kii dañ ko doon maamam ji dañ ko doon topp mm-hmm. wala baayam bii dañ ko doon topp way juram dana koy wax toujours ci ci ci ci jataay suma papa ñawkat la woon teeloo téer kon fekkuma suma papa ñi koy topp muy joxe wird ñi di ko sukk di ko raamal genn góor gu dëkk fële ci dëkk bu ñuy wax kër mbooye ca gannaaw wasu dafa fekkee suñu benn gàmmo ca kër kër kër euh, euh, kaanuma mbooyin góor gi toog xool ba mu yàgg ndekete moom moog sëriñ Maulana Cheikh Seyd Omar Kébé daan nañ ànd ca jamonoy maçon mu nekk labrees di topp Maulana Cheikh Seyd di ko liggéeyal mu di ko fay ñi gëj a si diir bu yàgg ba jamono yooyu mu ñëw ci gàmmu gi muñ ko muñ mënu koo muñ mu laaj maay bi ñu jox ko maay bi mu ne ba ma juddoo ba léegi maa ngi door a gis sëriñ li ko góor gi yow li nga wax mooy lan mu ne kii mooy sëriñ ndax lan mm-hmm. pour xar baa xam rek de mm-hmm. ndax lan sëriñ ñaari sëriñ duñ ko jur maanaam bi maanaa mm-hmm. su fekkee suma maam dañ ko doon topp ne sëriñ la suma baay bu ñëwee ca ndeset ndeset loola la jël ñi toppeeku mu ne sëriñ kon man su ma ñëwee man tamit foofu lañ may toppee kon lu ma fa def man lu ma fi def mu ne moom nag dafa ñëw futteeku liggéeyal ba ne ba doon sëriñ piir loo xam ne du bàyyi ko fi liggéey du bàyyi maama ko fi liggéey moom moo ñëw liggéey door ci foundation ba taxawal fi foundation sunu sëriñ piir bu set wecc boo xam ne ni tey këri diine yi ñuy tudd tey ci Sénégambie fii mhm. fuñ taxaw Maulana Cheikh Seydou Omar Kébé taxaw mbaa mu taxaw ci seen kanam waaw mhm. lu ñu woote Maulana Cheikh Saïd woote loola xoolal gàmm fii ci kuy woote gàmm fii ci Gambia. Mhm. nga rey fa ñeneen fukki nag ak nangam ba yokk ci gëléem. te at mu jot tànt bi di gën a fees. at mu jot tànt ba di gën a fees. Mhm. loolu may laajte yéen ndax gis ngeen tànt boobu fii ci senegal ci Gambia. déedéet mooy tontu ba. tànt bu mel noonu soo koy gis da ngay dugg biir senegal mhm. te tant ba dana wootee lu ma téeméeri at door am loolu wala eighty something years moom gu sax lu ma thirty something years te sax tant bu mel noonu mm-hmm. da koy def bu demee wakaam bu demee senegal de mm-hmm. ko fa def ay tant mm-hmm. dana koy lim jarut sax lim ndax time dafa dem waaye senegal mun na fa lim ay tant yu bare bëri yoo xam ne mu ngi koy def yoo xam ne ay muqaddam ñoo koy samp di ko def yoo xam ne moo leen fa samp benn ngi ni toog di al imam al akbar al imam Abou fii fii ci Nema Konko ñëpp xam ko mbooloo mi ko topp tey muy tarbiya ba mu ñib see daara ba léegi moom imaam abu mii mu ngi toog fii mm-hmm. waaye keroog ba mu tarbiyaa ci Mawlana Cheikh Seydou Omar Kébé mu commencé di naasiril xaq bi xaq di taal ci xaqiqa pire mm-hmm. ci salaatul fatiha tey boo demee Fuuta mu ngi fa am ay muqaddam yoo xam ne fii la toog ci Gambia mu tarbiya leen mm-hmm. ijaasa leen ñooñaa ngay tarbiya te tànkam génn génn frontière u Gambia nga dox ci yeneen gox yi Gambia fekk fa al imaam Abu Caam mhm. mu tarbi tarbiya fa ay jaam yàlla ba jëfal leen muqaddam ñu ngay taal leeru yàlla foofa te tànkam génnagul komb fi génnul komb fi loolu kon doy na xar baax doy na xar baax euh, yaay maam dañu dikk ci xar baax yi xam naa euh, duñ ko mën a jeexal euh, waaye it faaw ñu waxtaan ci ndaxte borom mi moom borom may la woon loole ñëpp xamoon nañ ko euh, soo ko boo gisee photo am sax ma nga gis jëmm ji waaye boo gisee photo gi photo bi rek da ngay xam ne kii euh, borom yi may la euh, ma li ma bëgg mooy ñu wax ci xar baax yi li mu làmboo woon te ku fees del ah ba kenn mënu la xam ndax waxoo ñu sa bopp waaye yéen ñi nga xam ne am ngeen chance u gënoon ko jege ba tarbiye ci moom boo ma doon nettali ci ay xar baaxam lan nga may wax yaay maam góor gi de. Mhm. man bi ma demee jàngi si. jàng mhm. jàng bind ba pare yaakaar naa ne dajale na xam-xam. mu yow mi man mi yaakaar naa bind bind moom xam-xam dajale naa ko lépp parce que ne lépp lu ñuy wax bind. Mhm. fànnu xam-xam jaar naa si. góor gi génta moo ñu boole. yéen ñaar. wallahi laa di nettali naa ko fu toog taalibe yaa ngi toog mu jooy. alxuraan sëñ Moussa mu ngi toog mu joola wallaay rawal génte googu du ma ko wax ci télé déedéet mhm. man musumaa xam góor gi sax musumaa xam góor gi bi ma ñibbisee fii rek yàlla def ma yur dara ma génte ko ndeysaan bi ma ko géntee nag mhm. gis ko te ne kii mooy waaj génte naa ko génte bi am na daanaka ñetti weer ma gis ko amoon na benn taalibeem bu bayam feebaroon mu ñëw fii mhm. di ko seet bi mu ñëwee nag mu taxaw si bunti kër si bunti si bunti jumaa bi di waxtaan ngir cheikh umaru fuuti taal ku bax la hmm. moo tax ne moom bàyyut benn góor muy waxtaan mbir cheikh umaru fuuti taal hmm. ma sopp ko nak jokko loxo waye nak ma fatte ko laaj ki moy kan ma fatte laaj turam ñu dem be yaga ma ngi benen waji koku tam talibem la mo ne kon suñ daayira papa cham mané ko yow ki ki kan la mo ne ma ki cheikh umar kebe ki mo cheikh kebe génte gi nak ñewat si man waye fekke dem na nak la dem ci mom bi ma demee yaakaaroon naa ne këram ay étage la lu bëri bi ñu demee ma gis ne mu ngi toog ma ngi koy xool mu ngi toog taalibe yi di ñëw ñun ak moom keroog ñoo bokk añ gan boo musta gis taalibe boo musta gis mm-hmm. ñun ak moom añam bu moo añ mm-hmm. keroog man ak moom ñoo ko bokka dafay dellusiwaat ci suufe gi mm-hmm. loolu mu ngi lay wone suufe gi tabe gi xarbaax yi yi ak waaw bu tabe wutoon bu baaxutoon bu souverain lu moo lek du ko du ko bokk ak nit ñi mhm. waye mom lu moo lekka la mo bok ak nit ñi man ma toog lekkam moom ma ti bare mo ne ma xana lek bi neexul ma mané ko wallahi neena na suma xol ba fess allahu akbar mu reetaan nak kon lolu mu ngi lay jangal ne gor gi ku tabe la yenenti yalla mu ngi wasi te li nga wax ci fotom yi ci lofam mhm. yenenti mhm. bi moo xam ne du yonni nit lu nga dajale ñetti mbir kenn kenn du doon yenent bi mhm. lu dul nga dajale ñetti mbir mhm. mooy lan nga doon ku rafet hmm? góor gi macha allah macha allah mhm. képp kuy doon yenent bi si zahiran wa batinan da doon ku rafet xool xool ko rek ñaar da ngay am xam-xam zahir ak batin naka la ah na ko del tamit ñetteel gi jàmbaar dëgg Serigne Seer bu ñu toogee fii di waxtaanee njàmbaaram rek. Mhm. njàmbaaram rek mun nañ ko waxtaan ba ëllëg. ñetti jikko yooyu yëpp li yenent bi waxoon moom lamboo na mu ngi ci moom dinañ dëkk ci yooyu dinañ dëkk ci njàmbaar téef gi ndax duñ ko mën a jeexal waaye loolu dinañ ci dikk ndax gis neen ak njàmbaaram ak yu bare yoo xam ne des na ko waxtaanee mbokk yi yéen a ngi bàyyi xel ay Africa euh, TV télé bi daj Africa di leen digtal programme bile ci góor gu tedd gi ngir rek ñu waxtaanee li nga xam ne rek euh, moo di li mu fi bàyyi ci liggéey li mu fi bàyyi ci jëf yu baax naam sax jugu fi ndaxte sëñ bi du fi mos a jug euh, ci euh, baatin waaye nag dinañ waxtaanee nag ka ko fi nekkal muy rek seex Bassirou kebe daañ ci waxtaan ci kanam daañu ubbi tam bu mu jokko ji waaye laata loolu dama leen bëgg a digtal ndax ay Africa TV démb demoon na euh, foofee nga xam ne mooy ca dëkk bu tedd ba di Madinatul Anwar daal di waxtaan ak yenn ci taalibe yi ñu digtal leen ko ci kanam santaat yàlla ndax ñun ay jaami yàlla lañ Maulana Cheikh Sayid Omar Kebbe jaami yàlla la waaye jaam boobu mu doon ci jaami yàlla yàlla def na yàlla tàggatal ko jaami yàlla yi mu omat leen jëmee ci yàlla bés bi nga xam ne tey moom moo ñëw bés bi bettut ko waaye bettut ay taalibeem ndax yàlla moo waxoon xalaqal mawta wal hayaata Baye Seet nekk jàngkati Alquran nekk jàngalekati Alquran te Alquran moo jàngale de ak dund kon ka koy jàngale jàngal na ko ay njabootam ba bés bi lum rëy rëy ak lum tiis tiis moom lam ñu daan dundalee rek lañ koy téye Baye Seet bër bu set yàlla la ñuy jàngal yàlla la ñu jox yàlla la ñu xamal yàlla la ñuy dund suñ digganteeg moom bés bi bettut ko bettut ñu. bokk na ci gàcce sa baay dee yow sa bopp nga ne deewuk sa baay bett na la bettuñu parce que baay seet amoon na sëriñ muy cheikh imam mouhamadou kabir bari saayibul fuyu daati rabbaniya keroog ba mu faatoo am na ñoo xam ne biñ jàkkaarloog moom dañoo foogoon ne moom du taxaw tranquille la ko imam yare woon yar nañu ci te baay seet yaru yàlla la am te ci la ñu yar kon bés bi lum tiis tiis tiis ñun ak njabootam ak ñëpp attan nañu bés bi ndax jàngaloon nañu bés bi eh, dee nag day waaye suñ tiofel ci bay set suñ sañon jouné atit ñu ne fi te yit amna am alquran bi bay set jangalon mo ñu waxon afa ayna bi xalqil awal balhum fi labsin min khalqin jadid mbubu yiñ solon mbub mim solon nek di bay set summi nako way solat na benen mbubu te ku sol mbubu fi ngay ñëwaat kon ñun ak bay set ci alamul arwa ñun ak bay set ci alamul jismaniya tay ji li doon yëngu ci bir jëmam doon yek te doon ñu jangal lolu mo rocceku waaye yàlla noonu la am na feneen fu mu ko denc kon su jëmm ji ñëwe danañ ko def rek li alquran waxoon summa amaatahu fa axbara nit bu faatoo dañ koy rob loolu moom moo ñu ko jàngal kon danañ ko rob waaye nag lu jiitu ñun ñu koy rob ci suuf si rob nañ ko ci suñ xol yi rob ko ci suñu wuy loolu la yàlla dogal suñ digganteeg moom bés bi nag kenn ku ci nekk xam na ne bés bi màgg na ndax ku tol ni bàyyi seet lim jàngal ci jaamu yàlla yi boo demee ci alquran def ne fa amma man yanfau naas fa yamkusu fil ardi képp ku nekk ci kaw suuf si di jëriñ nit ñi te njëriñ na bokkul ki nga xam ne moom ci jëmmi boppam dafa jëriñ nit ñi ci alal ak ki nga xam ne moom ci boppam dafa jëriñ nit ñi ci yàlla du benn bàyyi seet xalifa yàlla la ci kaw suuf ci lan ci tàggat jaami yàlla yi delloowaat leen ci seen borom alquran moo ko waxoon kunu rabbaniyin jël leen nit ñi ngeen yar leen delloo leen ci yàlla bàyyi seet ci loolu la nekkoon kon bu bés bi jotee kenn ku ci nekk li nga yëg ci moom moo ñu fi indi waaw kenn ku ci nekk li nga yëg ci moom moo ci biir am na ci ñoo xam ne bàyyi seet moo sauvé seen wërsëg am ci ñoo xam ne moo sauvé seen bakkan am ci ñoo xam ne moo sauvé seen xam-xam am ci ñoo xam ne moom bàyyi seet ci boppam moo tax ñoom ñu am ngërëmal yàlla alquran nag moo ko wax yaa ayyuha allazina amanu ittaqullah wabtaqu ilayhil wasila yéen ñi nga xam ne gëm yàlla ak ragal yàlla mu ngi ci yéen uti leen kilifa looloo tax ñun ñu jàppoon ko muy suñ kilifa te billahi wallahi talaay bàyyi seet kanamam mooy suñ kilifa gannaaw mooy suñ kilifa parce que yalla amul gannaaw leppam kanam la te yalla lañ doon jangal lool nga ma doon laaj. wa Gambia wa Senegal, wa aduna bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te di leen balu ak di nuyu wa AIS Africa di wax rek ne aduna yëpp ño ño ñak jëm jo xamne ni euh, jëm international la won nek ko xamne ni digënté Senegal ak Gambie ak fu nek ci aduna bi li nga xamne ni mom la yalla dogal mu jëlé ko ci Cheikh Imam mohammedul Kabir Bari mooy fayidu Cheikh Ahmad Tidiane mu jëlee ko ci Cheikh Imam Mouhamadul Kabir Bari mu nekk ci muqadam bu mag mooy euh, mu benn muqadam boo xam ne ni moom la Cheikh Imam jiital ci lépp lu nga xam ne ni moom la doon def mu tasaare lii nga xam ne mooy faydu bi ci Sénégal ak Gambie ak ci Séné euh, euh, adduna bi gépp nekk koo xam ne nii nag tey moom la ñu ñàkk waaye boo xoolee nag tey ni nga xam ne nii noonu nga gisee ndaw ñu ni ñu organisé woon nii daf lay wan ne am na ak dal ak leer gu nga xam ne nii def na ko ci xoli jaami yàlla yi nga xam ne nii jaayante woon nañ ak moom ba ñoom ñu am benn tumaani benn dal goo xam ne malgré gis nañ ne lii tiis wu mag la wu dal ci umma islamique waaye yàlla denk na leen ñu attan ko man koo digérer ba tey gis nga ko ninga xam ne nii mooy taxawaay bu rafet bi am ñu di ko jaale nag Sénégal gépp di ko jaale Gambia gépp parce que man maa ngi dëkk Sénégal maa ngi dëkk mandax dëkk ci région bu Kaffrine bu ko defee ñu ngi leen koy jaale diko ko jaale waa Gambia yëpp su doon la jox seede ci sëñ bi dama naan la jikkoom mooy alquran mooy ndax li nga xam ne ni moom la alquran digle moom la yàlla digle ci biir alquran yonent bi daan ko dund foofu la teg tànkam lii nga xam ne ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane yi nga xam ne moom mooy e, ci tarixa boobu la doon dund fa mu tegoon tànkam foofu la teg tànkam muy xamle yàlla muy defar jaam yi muy nandal leen leeru xaqiqatu ilahiya xaqiqatu muhammadiya loolu mooy fi nga xam ne ni fa la tegoon tànkam mu nekk jaam boo xam ne ni doomu aadama boo xam ne doomu aadama bu bëri yërmande ci ñi nga xam ne ñoom la doon àndal dafay ànd ak ñoom bu amee alal bokk koog ñoom bu amee euh, li nga xam ne ni mooy ñaan ñaanal leen te du leen laaj benn dërëm waxuma la nag li gënoon a tumuranke ci doomu aadama bi fexe ba ruu mucc ci diggante mook boromam loolu mu fexe ba xett li ci jàmbi te du ko ci laaj bu mooy la Cheikh Amady Tidiane daan def rek foofu la tegoon tànkam tarbiya ku ñëw jaayanteeg moom mu fexe ba nga xam boromam loolu mooy li nga xam ne nii. ngeen xamante maa ngi xamanteeg moom 98 98 1998. ci loxo Cheikh Jim Job mi nga xam ni moy président exécutif bi tay koku la di waxtaan ak mom yalla dogal ci biir xamanté bobu nonu ñuy waxtaan ci li nga xam mo moo dimbalé nit bam mu xettali ko ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane xam boromam yegg ci yalla mune ne ma ndax lolu nek na sa yitté mané ko actuellement dé lu nek sama yitté la mune ma wax deug yalla gis na fi ko ni té ci lolu lay yëngatu mané ko man lo rek moy sama yitté suma la waxé sama deug lolu lay wër kérok lama bolé bisu talata ci takusan lama bolé Cheikh saint ma jël fi tarbiya delluwaat Ngerman ndax liggéey ko fo mois de juin juillet août septembre laa dellu siwaat fii mu defal ñu liggéey bi nga xam ne ni moom la waroon def ci ñun ñu tuddee ko wàcce ci lañ def loolu lañ jëflante ak moom su ko defee nag mu nekk koo xam ne ñàkk nañ koo xam ne dëgg-dëgg yàlla moo doon suñ lépp ba léegi mooy suñ lépp waaye dara jogu fi nag ku xam nitu yàlla xam ne liggéeyu bi mu teewee ak bu joxee gannaaw bu joxee gannaaw sax la gën mën a def li muy def ndee xamoon na ko waa mi ngoog euh, ci wàllu yar ndax démb gis ngeen foofu lu fa xewoon te bari waana na ci yenn kër yooyu dem su kilifa gi génnee nga gis nu taalibe yi euh, di di di demee nga gis nu taalibe yi euh, di di di wane waaye démb nga gis ak dal nga nemmeeku foofu ñoom ñëpp ñoo daloon gisoo kenn ku yëngatu gisoo kenn ku wane lenn loo xam ne lu ñàkki teggin la wala waaye dafa mel ni sëñ bi daf leen yaroon xamal leen que ni moom du yàlla te daf fi jugee. Euh, jërëjëf soo gisee loolu am olof dafa wax mu ne butéel bu nekk lim defoon loolu lay xeeñ ñu hmm. ne xale bu nekk liir bu nekk suy gall lim nàmpoon loolu lay gàll hmm. kon li Mawlaana Cheikh Sayid yaree njabootam mooy jub hmm. dal loolu bis bu mën a ñëwit boo demee fekk fa njabootu Mawlaana Cheikh Sayid noonu nga leen gisee te noonu la ñuy dundee macha allah loolu moo tax macha allah euh, yaay maam euh, yar gi ndax waa ji mi ngi la koy wax seede yi mu indi si góor gu baax googu mooy euh, ni mu leen daan yaree euh, ni mu leen daan xamalee ki nga xam ne mooy seen borom euh, amul lenn lu muy toog ak ñoom ba leen di wax ne man maay diw fii laa jugee fii laa fàqe ko waaye lépp lu mu leen di wax delloo leen ci yàlla ci yar leen ba tax na loolu lañ manifesté maanaam lañ wane démb ci rek euh, bi góor gi baax gi bañ ko doon jël ngir di ko jébbal boroomam nga gis ñoom ñëpp ne teg ànd ak di ko waaye gisoo kenn koo xam ne wane na fa ak matadi wa wala euh, yëf yu ñàkk teggin dafa mel ni sëriñ bi xamal na leen ne kan mooy yàlla waaye xamalu leen boppam wan leen ne man du ma yàlla te daa fi jugee. Eh, yar <coughs> robam bi demba mhm. nit ñi nu mbir mi yeexee yépp mhm. waaye ñëppaa dal kenn yuuxuwut te fees deb fees yalla deb la la gaay def waaye mhm. kenn kenn yëngatuwut ñoom dañ ko ja ne saa ñu bari dañ ko ja ne saa du tiis parce que ne gor gui mom gor gui mo len ko ya mo len ko moñu bari yëguñ ne ker bi weet na de ndaxte duñ ko gisati fii. Mhm. waaye ala kulli haalin waaye nit ñaa ngi dal ñaa ngi feex ñaa ngi bég tamit. Mhm. loolu nag moom moo ko sol si jaami yàlla xoolal démba paa bi bu mu génnee àdduna Dakar fee nit ñaa ngi sonn. Mhm. kenn lekkut kenn naanut waaye kenn doo dégg kenn mu ne man tey xiif naa. walla mar naa. ndaxte am na lu mu def si xoli jaami yàlla yi. loolu moo feesal biir moo feesal xol yi moo feesal jëmm yi mhm. moo jox nit njama ah, kattan kattan moo tax ne kenn dem ba sonn ñëpp dal ñëpp a dal mhm. kenn yuuxuwut kenn yuuxuwut te xoolal sëriñ gi mu ngi génn aduna daanaka xapastri yi mhm. xapastri yi bu mu xewee ba léegi jaam yaa ngi dox di def lu nekk ba tout xapastu lañ ko rob xapastu 24 hours gars ñu ngi ko ngay dox si moom comme moom moo ko liggéeyal yàlla moo liggéeyal yàlla li nga xamante ne mm-hmm. bàyyi foos yàlla def tajalliyaat feeñal ko si jaam yàlla yi mm-hmm. ñooñu ñu mun koo liggéeyal ndaxte yàlla mu ne wallahu xalaqakum wa ma taamaluuna yàlla moo leen binda mm-hmm. binda seen jëfin yi kon lu doon nit doon nit ñi di def demba yëpp sëriñ bi bu fekkee ne àggutoon yàlla demba coow bi day day bari sécurité yi mënu si dara waaye nag yàlla bi mu def si joom si xoli eh, jaam yàlla mhm. yàlla googu moo dalloo nit ñi si cor yi mënu si dara mhm. yàlla bi mu sol si jaam yàlla yi mhm. googu moo dalloo nit ñi ñëpp dal ñëpp dal te koo ci làmb def na ci yow lu doy lu tax nga war a mën a ngay dégaat nit sax mu ne la baalal ma yow mi ko dégaat yow mi ko dégaat de moom mi ñu dégaat mu ne la baalal ma du moom du moom ala kulli halin góor yàlla gi te 24 hours gaa ñu ko liggéeyal 24 hours ñu ko 24 hours boobu la doon jàngale. tarbiya bi mu doon yar yëpp mooy xaqiqatul muhammadiya xaqiqatul ilahiya moo tax bàyyi fos nit ñàlla fay ko xaqiqatul ilahiya mooy tuwelif awas yi ak xaqiqatul muhammadiya mooy tuwelif mu ngi noon macha allah loolu loolu kii la su ko defee euh, mbokk yi euh, euh, mbokk yi seetaan am nañ Baboucar am na mbokk mu ñuy nuyu mu ñuy woo Baboucar Ba Ibo Town Baboucar Ba ñoo ngi lay nuyu salaamaaleykum wa salaam Serigne Babacar noo ngi lay nuyu lan ngay uh, seede uh, ci rek jëmm uh, tedd ji nga xam ne rek dëdd nañu ci ba si moom rek Cheikh Omar Kebe yan seede nga indi ci moom. Hmm. waaw waaw maa ngi leen di ziare wax di rafetlu Bila la nuyu yow mi nga xam ne yow nekk président bi ngi lay fay waaw di nuyu wale si jàmm suma si wax dëgg di programme bi mënu hmm. maa ñàkk a mom, nag yàlla man euh, hmm. waaw ndax ndax mi ngoog euh, xam naa ne ñoo ngi koy rafetlu duggam bi euh, di leen rek fàttali ne mën ngeen ñu euh, jokk ndax network am bi nekkul di baax moo tax rek mu daal di dog su ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan ndax nag góor gi góoru ñëpp la woon ni ki ni koy wax rek simub guddi la woon ku daj rek da naan yow képp daj su ko defee rek ngeen dugg su ko defee ñu wéyalaale waxtaan bi ci bu mu jokkoo gi foofu rek ñu di su ko defee am na lu ma la bëggoon a laaj ci ki nga xam ne rek moo di sang bu tedd boobee euh, ci li nga xam ne rek mooy euh, ñi muy defeer euh, ci di leen rek xamal yàlla yemul woon ci lool képp ndax tamit am na ci benn gàmmum boo xam ne déglu naa waxtaan bi fu mu doon waxee ni képp koo xam ne ñëw nga fii ci madinatul anwar doo fi mos a atte xeex jërëjëf Garmi li tax mu wax la loolu mhm. wax jooju dafay delluwaat ci yarin bi nga xam ne moom la imaam doon wax léegi mhm. ndax xaqiqatul muhammad yi ak xaqiqatul ilahiya soo ko boolantee mooy ba bés bi mooy 24 hours. mooy bi nag bu ñu la ko xasee xamal ba mu leer la naññi. Mm-hmm. addina bi bis bu fi man a ñëw samedi laag dimanche laag lundi laag lépp 24 hours rek lay doon benn bis ëppul 24 hours. Mm-hmm. kon benn 24 hours boobu mooy ñëw tey mu tudd fi dimanche. Mm-hmm. mu ñëwaat tudd lundi. mu ñëwaat tudd samedi. su ko defee nag mboolem lu yàlla bind. nit rek moo ci mën a xam ne tey samdi la mhm. suba dimaas la beneen mbindeef bu dul nit xamul xamul mënta xam bisi léegi su boobaa mhm. yow nit suñ la laajee lu tax nga xam ne tey moo tudd samedi démb moo tuddoon friday mhm. looy mën a wax danga nga ne ah loolu de fi laa ko fekk ñu bind ko ndekete loolu ay koola la ay melokaan la yu nekk ci jëmmi doomu aadama loola la Mawlaana Seex Seyd jël xamal ko jàmm bi jàmm bi xam boppam xam boroomam dal di dal. macha ci lum dugg dana ca dal ànd ak yar. ndax eh, bu fekkoon ne doomu adama bi dafa dafa nekk kooma xëm. Mm-hmm. ci bisu tey bi tudd samedi. Mm-hmm. mu xam ñaari fan ba ñetti fan tey ci kanam bu dafay ximmiliku ci bis bu ñuy tuddee talaata. Mm-hmm. man sax dal na ma waaye booba ma yàlla xam naa su fi xajoon rek ma nettali ko. léegi mu xamele ko ci bisu talaata su boobaa moom waa jooju nekkaat nit xam tridés sii suñ ko laajee tey lan la mm-hmm. dafay wax ne tey samedi la parce que talaata ak samedi amuñu bokk ñoo bokk ko la mm-hmm. ñoo bokk benn 24 hours bi kon li tax nga koy xàmme loolu mm-hmm. soo doog toggut ak Maolana Cheikh Seyd ak njabootu Maolana Cheikh Seyd billaahi wallahi doo ko mën a xam doo a macha allah kon loola nag boo ko xamee rek faaw nga dal gar mi da ngay dal macha allah da ngay mën a ànd ak ku nekk macha allah euh, yaay maam guddik euh, alxamis guddik ajuma ñu ñàkk fi kilifa guy gu mag daanu lan nga ñu mën a wax ci ci diggante boobu nga xam ne dañuy euh, ñu bari sax léeg-léeg suñu lay jox ay ñaan dañ lay wax daf ko ci guddik ajuma sooy ñaan lu ji ñu ne daf ko ci guddik ajuma sëñ bu baax bi sëñ bu tabe bi daal di ñuy dëddu ci bi ci guddik ajuma googu lan nga ñu mën a jàngal euh, ci loolu yenente bi moo ko jàngale kon nag man jàngale googu. Mhm. laay jël rek jàngale ko. na ñëw képp kuy jàngale. Mhm. yenent bi jàngale moo gën a am solo. Mhm. mu ne xayrul ayaami yowmul jumaa. wala si beneen xadis mu ne kullu cheyin lahu sayyidun wa sayyidul ayaami yowmul jumaa. yenent bi nee ne lépp loo gis am na sanga. am na sanga waaye sanga bés yi bés yi seen sang mooy yowmul jumaa. yeneen bi wax ne képp ku génn àdduna si bés booba. nga nga nga baal ma yaay maam ma ñu jël rek ku nekk ci buumu jokko gi euh, euh, ñu sëñ bi ñu ngi lay nuyu. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum salaam. tur bi naka la. ah Mbay Bàcci Mbay. Bathie mbay yaa ngi woowee euh, suñcu alaaji euh, lan nga bëgg a indi ci seede ci rek jëmu ju tedd ju ñuy waxtaanee euh, tey jile di rek Baye Cheikh Oumar Kébé. mi ngi noonu bu mu jokkoo gi neexut xam naa rek ci network bi la yaay maam yaa ngi woon fu am solo ci rek guddik àjjuma gi nga xam ne fu bis boobu ci lañu ñu rek kilifa gi dëddu. yenente bi wax na si xadis mu ne képp ku faatu mhm. guddi alxames mhm. wala guddi yowmul jumaa mhm. yow ku texe nga macha man maata yowmul xamis aw leylatul jumaa faqad gufira lahu képp ku génn aduna ba si alxames wala yowmul jumaa yow yàlla jéggal na la même si borom defu dara sax moo tax ne góor gi bu génn toon aduna alxames mu bettañu de te moom dafa jël mbir mi xaajale ko dafa dafa def ba boori xappaas apastri. mu alxames dem laal fii laal fii. ndeysaan. E, góor gi góor gi waxtaan ko yombut. déedéet. waaye yàlla na ko. xoolal mhm. góor gi bés bu mu génnee àdduna. Mhm. ànd fan yi mu ngay tàng bu baax a baax. fan yi mhm. mu ngay tàng bëccëg bi day tàng jir waaye dem ba tàngul dara. déedéet taw bi nga tamit soo bàyyee xel. guddi googu. waa ji bu mu doon bu mu doon tàggatoo. dafa defa ngelaw bu rëy ngelaw bu sedd. Hmm. ngelaw boobu nag àndaale mbir mi ku yàlla may nangul ko rek. macha leneen lii du du du politique yàlla moo ko ko may. moo hmm. ko liggéeyal yàlla ba yàlla may ko ko. Hmm. góor gi dafa liggéeyal yàlla. liggéeyal Cheikhu Tidiane. Euh, yaay maam yaay maam nga may ñu Mbaye Guèye euh, suñcu alaaji mooy euh, moo ñuy moo dugg ci buumu jokkoo gi Mbaye Guèye noo ngi lay nuyu. asalaamaaleykum wa rahmatulah wabarakatuh waaleykum salaam Mbaye Gueye euh, yaa ngi ñuy seetaan ñuy waxtaanee ku tedd gi euh, ci ay xar baaxam ak it liggéey yu mu fi def ba xëy dëdduñu ci euh, Zahir lan ngay indi ci seede ci rek góor gu baax googu. waaw. ah. Mbaye Gueye. maa ngi ko déglu si téléphone sëñ bi aywa ñu ngi ngi nuyu yéen ñëpp ñu nekk ci programme bi. Mm-hmm. waaw di wax ne euh, góor bi ngeen a waxtaanee nii képp ku defar rek raw nga say maag. Mm-hmm. ñun ñi nga xam ne defar nañu dama wax ne booy laajte sëriñ boo seeti sëriñ bi dama seeti taalibe bi képp ku taalibe boo taxaw nekk sa konkal loolu rek doy na xarbaax. Mm-hmm. loolu kese doy na xarbaax. wallaay. man gis naa ay talibé yoo xam ne nii loo jàng-jàng boo tasee ñoom rek ñu dal ci xam-xam. wallaay ndeysaan wallaay loolu rek laa amoon lu ma si sànni ci kii kii moo nekk koo xam ne moo ñu defar ci aduna ak seen àllaxara. jërëjëf jërëjëf sëñ Mbaye. di leen sant di leen gërëm bu baax di seen programme bi. jërëjëf sëñ Mbaye jërëjëf. jërëjëf sëñ Mbaye euh, dégg nga sëñ Mbaye lu mu daanelee mooy mbër mu mu defar rek ba taxaw raw say maas. Uh-huh. Eh, moo tax ne fu ñu doon ubbi waxtaan bi man la mhm. bu ñu waxee diw rek. Mhm. xoolal ñu ko ñu ko topp. ñu ko topp waaye nit ñi mën nañ nga topp. Mhm. nga demal leen feneen am na ñu topp ñu bari am na ñu topp. footballeur yi musique musiciens yi am na ñu ñu leen ñu topp. waaye nag góor gi boo gisee nit ñu topp ko dafa topp yàlla. setal diggante moom ak boromam. diggante moom ak Cheikhou Tidiane. góor gi boo ko gisee rek suñ la jàngalee Cheikhou Tidiane rek mhm. da ngay jël image yi Cheikhou Cheikhou Tidiane nga jox ko ko ak lu mu liggéeyal sëriñam loolu la xamal jaami yàlla moo tax ne jaami yàlla jeex si moom góor gi wàllu yaram wàllu yarinam mhm. kenn du ko mun a nett kenn du ko mun a jeexal doon na cheikhal murabbi bari na ku nekk cheikhal murabbi mhm. manta nekk cheikhal muraqi yooyu nag ay ay ay ay la yoo war toj ndax euh, nit ñuy seetaan man ci man ci jëriñu xam nga ñetti sëriñ ñoo am mhm. cheikhal mu allim mooy sëriñ bu lay jàngal mbind kese jàngal la garaama jàngal la usul bandiq badi usul fan siira miira rép kooku am na kooku sëriñ la waaye jëmmu kese la mhm. xotti kese la mhm. ak cheikhal mu rabbi mooy ki lay xamal diggante binda yi lu nekk si diggante binda yi binda diggante binda yi. ci diggante waaw diggante binda yi. Mm. ku la koy jàngal. Mm. moom mooy cheikhal murabbi boo paree si kooku nag. Mm. nga am cheikhal muraqi mooy ki lay bon jël sa loxo teg ko nii mu ne la yàlla mu ngi nii. Baye Cheikh moom kan la ci woon. moom nag dafa dajale cheikhal muallim cheikhal murabbi cheikhal muraqi boo demee këram. daara baa ngi taal mooy mu muallim daara baa ngi taal. boo demee këram nga gis nit ñaa ngi wirda bàyyi seen aleel bàyyi seen nelaw ba di wirda buñ paree wirda nag lu ñoo waxtaane fa yàlla fu ñoo rootee foofu loolu moy Cheikh al Mouraqi moom moo leen moom moo leen eggale foofu moom moo leen puus bañ fa àgga ñu toog te alquran tam jàngale na ko alquran nee ne huwa alladi baasa fi l ummiyina rasula minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum yenent bi yàlla mu ngi ko doon nettali mu ngay comme exemple kan mooy yenent bi yàlla mu ne huwa yenent bi mooy huwa alladi mooy ki nga xamante ne huwa yi baata fi rasulan yàlla moo yónni si yeneen ah, si makkatal mukarram yenent bi nga xamante ne yu allimuhumul kitaab moo naa jàngal mbinda te yenent bi moom du gisu binda yenent bi soo bindee Muhammad xamul ko yenent bi yàlla mu ne dafay jàngal binda wala xikmata ak xikma xikma mooy xam-xam bu góor yàlla di def si jaam yàlla yi mooy ñun luñ ko toppee xikma googu tamit wayu zakkihim mooy def naa sellal mu génnee si jikko yu bon si euh, yaay maam yaa ngi woon fu am solo de waaye euh, mbokk mi la di Lamine Dabo di ñuy woowee woowee foofee ca Sinthiou Balia euh, Mister Dabo ñoo ngi lay nuyu di la dalal ci waxtaan wi nga xam ne ñëpp ko bokk ndax góor gu tedd gi la ñuy waxtaanee Mister Dabo asalaamaaleykum waaleykum salaam. ñu lay fay yan seede nga nar a indi ci góor gu tedd googee nga xam ne dëdd nañu euh, ci Zahir waaye mi ngi fi ak ñun ci baatin yan seede nga am euh, ci rek góor gu baax googu. ah mm-hmm. ngi noonu. sëñ. monsieur le ñu ne kon waaju baax mu xam ne ñu daal di xam-xam soo waaye ñu ngi ko waaye xam nga sëñ bi dama am loolu wax sëñ bi dama dama bàyyi dina dina bàyyi dina si gannaaw. wallaay dëgg sëñ bi dana nekk naa la koo xam ne ñu daal di xam yàlla rek a xam ñu si waa de si bëgg fekk saa yi ñu ne ñu wax. cuma mungkin alam juga apa bila alam juga kita mulai dua ya di kalian Masya Allah. Aku mulai bawa yang wajib sefarad na ko do na na ko tan ni won na amma tan ni ta ko do ni ko na tan yalla la hmm jajuf ya mi ngoog moom eh, eh, Lamine Dabo doon woote foofee eh, ca Sinthiou Balye ni ki noonu la lay wóoree rek ni sëñ bi adduna yëpp ko bëggoon sëñ bi adduna yëpp ko bokkoon moom xëy na yàlla moo ko baaxee woon réewum Gambia rek waaye ngir ñëpp la woon ni ki ko woykat bi doon waxee ne ajjuma moo doon làmbu ji mbër yëpp ñëw bàkku moom samedi mu ñëw wuub làmbu ji hmm? loolu moom lu neex a wax la leeral la hmm. ndax làmb ji moom mooy addina bi rek mhm. ndax addina bi yàlla bindee addina bi teg fi ay mbindeef mhm. mu jël mbindeef yi bi ñu tuddee doomu aadama mhm. mu gënal ko ci mboolem mbindeef yi tey doomu aadama dañ koo bind teg ci addina bi beneen bindeef bu nekk ci addina bi dañ koo bind ngir doomu aadama waaye doomu aadama binduñ ko ngir leneen waaye lépp lu fi nekk rek ngir doomu adama la moo ko war a mën a yuus na ko neexee. na kon doomu aadama boobu. Mhm. ci seen biir dañ fa am ñu ñu ñëwaat nag wa faddal naa baaduhum mhm. ala baadin macha allah yàlla mu ne ma jël ñenn ci doomu aadama yi. Mhm. jox leen cër ba tax ñi gënee ci ñeneen ñi ndax ñi man leen a kon Maulana Cheikh Seyd dafa bokk ci borom cër yooyu nga xam ne. dafa ñëw pour ñëw di defar. macha allah ba tax ma ne liggéeyam démb ma wax ko ca jotaay ba ca euh, Madinatul Anwar. ma ne Maulana Cheikh Seyd mission dafa jeex. waaye yërmande bi mu doon dundeek jaamu yàllay mm. moo tax mu dileet 24 hours. Mm. su ko defee nga baal ma sëñ Moustapha. Mm-hmm. Euh, Alfousseyni euh, Ndiaye euh, Alfousseyni ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Eye Africa TV yan seede nga bëgg a indi ci góor gu baax googu nga xam ne moo ñu dëddu ci Zahir te mu ngeek ñun ci baatin. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kontaan nañ si programme bi bu baax. jërëjëf. te li ku ngeen nekk di waxtaanee bu baax la. macha allah. bàyyi la si ñun. ndeysaan. maam la si ñun. macha allah. sëriñ la si ñun. ndeysaan. bàyyi seet kebe kenn amul fee am. déedéet. lu mu def si jaam yàlla kenn mënul la ko wax. Mhm. bàyyi seet kebe jàppale na ñëpp. bàyyul kenn xeebut kenn xoolul ne kii lii la kii la xoolul ne da ñaata xoolul ne danga nga xam Baye mhm. Seck de soo ñëwee si moom loolu nekk nekk xale soo ko wane dama la soxla rek dafa dafa jóg mu mu mu mu fekk la mu toppala si ne joo mu fekk la foo soxla ngeen ngeen taxaw wax Baye mhm. Seck de dama dama xamante moom si 2002 temps boobu mu ngi kunku wa alhamdulilah sant nañ si Baye Seck bi bu baax lu mu def si jaam yàlla yi ak jàppale bu mu jàppale jaam yàlla yi ak liggéey bu mu liggéey ci biir Gambia ba jaama am Gambia ba dal am Gambia. macha allah Baye Seck bi mooy sëriñ bu xam ne. boole na xeet yi yëpp ñu nekk benn xeet yi jëlante sëy xoolu na kii lii la xoolu na kii lii la xoolu na kii dafa am xoolu na kii dafa ñàkk. serigne bu ba mo dem ni waaye ñu ko ñaanal yalla yi fu nekk yal mhm. yalla yàlla yokkal leeram yokka trangam amin amin ci ke de fu ñu fekk ak fu ñu teg mhm. yene na tilim ci nit ñi tek sun tank ci strat kan mustaqim mhm. yombal ñu jaamu yalla bugal ñu tilifa yi kon kooku kenn amul feyam maye nu ki naka abu caam ak mustapha kebe ak yow mi xamne yaa leen yaa leen yaa leen dalal fii si mm. télé ñaanal di ñaanal sëriñ bi ak njabootam yépp sëriñ Basir ñu ngi koo ñaanal yàlla bàyyi ko suñ kanam gannaaw yàlla tey mooy suñ mooy suñ lépp bàyyi seet kebe du ko bàyyi mu ko abadan te du bàyyi njabootam moom leen am dem njabootam leen am ba ilaa yoomi mhm, mhm. bu baax moo dem nii ndeysaan billahi du leen joom gannaaw mu njabootam ba ilaa yoomi di mu la ak moom la ndeysaan ba ilaa yoomi di jërëjëf kontaan naa. jërëjëf Alfousseyni Alfousseyni Ndiaye du ñu wooyee si suñ ci sóor yi euh, wax ji booy xool dënd bi nga xam ne sax euh, euh, tooy na su ko defee ñu jàll ci beneen ponk boo xam ne sëñ bi ci boppam moo ci doon moo ci doon wax su ko defee ñu dellu si waat ci jataay bi. mooy. su ko ñu seetaan ki nga xam ne rek mooy. doon ñim yar ñëpp ci loolu la leen yar. ñu ya yalla ay kese fi ne Muhammad def ak dindi lum def mo am waaye lum dindi mu ferek, fi rek bu la yàlla xayee xasee may bopam nak dimbalé la ba nga sa xol bi ay kese ci na nga joxe sa bop lepp jox ko yalla bu lay delloo daf lay bopam yàlla kum delloo boppam xam nga lépp yal nañu ko yàlla defal yal na ko yàlla teeroo yërmande ak njéggal ak texe defal na ko ko yal na sax bellamb mbooleem jaam bu yàlla bind dimbale la ci gëm yàlla bañ yegg si fii dañ noon ñu yegg si kenn la ci ñun kenn la ci diina ji ñu nit kenn lañ ci moom ndax jamono moo tax bañ ko déggee rek ñu daldi buub suñu bopp rek bàyyi yitte yépp dal di ñëw ñu ngi gërëm nag bu baax ñiñ fi fekk gërëm imaam ci xutbam bu rafet bi ci ak jiite bu rafet bi gërëm gërëm Cheikh Aline Diaby mi doon def waxtaan bi waxtaan bu leer la def mu def ci ci kitaabu ak sunna loolu nag mooy xam-xam yonent bi loolu lañuy bàyyee feeg ñu ngi ci tënku rek duñ sànku mukk yal yàlla dimbale saxal ñu ci ci siraatal mustaqim bañ koy fekkee yal nañ ko fekkeeg loolu ñew fekk ko ca aljanaay firdausi yalla yobbu fa ñep yalla mën baal ñep te du ko wàññi dara ah jaamu gi ñi def euh, pour ñun rek la nit mën naa ànd moom lu yagg ta doo ko xam talibi bu mu tarbiya xam na li nga yelot tur yalla boy yelot boy jubut mu sentu ne yow nga bu bëgg nga jub mu jox la tur yalla bu la jublo su fekkee yow mag nga jub nga yàgg nga ci kurus ma jox la mu jox la bi laa ja booy jaamoo yàlla su fekkee yow njubang ci yow waaye am na lu des ci yow mu jox la boo xam ne daf lay jubbanti te daf lay xiir ci jaamu yàlla ku xamul nit xamuloo ko Cheikh sayit loolu la doon def amul benn turu yàlla moo ko daan wax de turu yàlla yi ma am te tasaare ko tey bu ma ko soxla woon yëpp dinaa ko jotaat parce que amul ci benn buy lakk te duñ ko génne xaat lan moo war a tax pour mu jotaat ko yëpp def na ko ci jaami yàlla lépp tasaare na ko bépp taalibe boo gis muy ci seex Sayid am na lu mu def ca poosam ba li mu am ci muqaddam da leen dimbale ci poosam dimbale leen ci xam dimbale leen ci turu yàlla bu leen di yokk toog na benn bis mu ne li ma leen jox bu ngeen ko liggéeyoon passé ngeen fi ngeen nekk waaye da ngeen di caaxaan rek bu ma gàcceel li ma leen jox dem leen ngeen liggéey ko ñaan naa ba sonn bind naa ba sonn joxe naa saafara ba sonn te terewut yéen a ngi ne ndepp fu ngeen deppeeral te mu wax dëgg la lim ñu jox buñ ko liggéeyoon billahi passé nañ fañ nekk waaye nag turu seex Seye liggéey ba ca kaw nga nekk ci ronam ne da nga ko liggéey pour tolloog moom boo watul buñ la rëccee nga detteerlu te dootaa jak dama daan wax ne képp koo xam ne sayit tey ci Cheikh Sayit mooy boo ñëwee tarbiya jëlee fi turu yàlla perte nga tarbiya ndax nga am wërsëg perte nga man de bi ma àndee ak moom suma bitig bi dafa daanu ba ngay ñëw lu yokk sa bitig bee taxaw da jog Cheikh Sayit amul alal lim am mooy yàlla ku ñew mu jox lako ci lan salatul fatiha ak la ilaha illallah jubal jami yalla yi ñu teggu ci njub mbaax nag Cheikh kum ta don tok na mu ne bu man set sebe ta mbax ma teyel ko ci suma bo loxo yi billahi wal kitaabi ñëpp danañ bax amul ken way gannaaw yalla ci bopam mo wax ne safara dina ko fessal aljana dina ko fessal Cheikh man ta baxal ñepp parce que ki yalla tan ne day dem safara bu ci lay du dem mi ngoog seede yu rafet yooyu nga xam ne euh, def nañ ko ci moom ku ci mel ni imam ratib bu Banjul di Cerno Alioune euh, Maska waaye laata lu dama lay wax laaj euh, sëriñ bi diggante mag këru diine yi ci réew mi nan la meloon jërëjëf gar bi foofu rek doy na xar baax ndax sëriñ bi ma Mawlana Cheikh Seydou Omar Kébé dafay wax ne ku yàlla mbaaxal nangul leen ko loolu la digal njabootam hmm. képp ku yàlla baaxal nangul leen ko ndax bu yàlla baaxalee imaam Thiam ma nangul ko yàlla tibb ci lam sédd imaam jo jox ma yàlla baaxal garmi ma tibb ci la mu jox garmi defal ma bu yàggee ma ma ànd ak ma jot leen mbaa ma jege leen kon loolu la jàngal taalibe mi taalibe Maulana Cheikh Seydou Omar Kébé pire boo xam ne dégg nga Maulana Cheikh Seydou amuloo nit yàlla booy bañ amuloo këri sëriñ booy bañ te programme buñ la woo mën nga fa dem te fuñ la wax loolu da nga fa mën a wax te ku ne nga mën a àndal ndax lan daf la bëggloo ñëpp adina bi bo amé koy xajalé sëriñ bi neen te yow mayulo ki may sa sëriñ mo may sëriñ keneen kon bëggal sëss bi nga ni nga bëggé sa sëriñ bëggé ko benen sëriñ ba soko défé rek da nga dem ndax sëriñ bëlé boko bañalé talib bi soko bañalé sëriñam du tax yalla lam ko may mu wàññeeku mënu lay wax yalla ki ba may yalla déggal la né du may kon mm-hmm. nak motax maulana Cheikh Seyd bëgg talibé mi lañ am sax lañ am ñu jëriñoko lañ am nekk loo xam ne ni lu ñuy mën a tasaare waat la moo tax mu ne képp ku yàlla baaxal nangul leen ko du man Serigne Saïd maay baaxal mhm. du sa Serigne keneen mooy baaxal du yow yaay baaxal yàllaay baaxal kon yàlla fu mu dugal mbaaxam nga rek nangul ko su boobaa mhm. bokk na ci ngëm yàlla waaye bu yàlla baaxalee nit nga bañ ko mhm. kon weddi nga borom bi di dihuloo nga bañ nga yàlla nga weddi nan la sëñ bi meloon ci politique comme maanaam gis nañ réew mi euh, ñu bari dañuy wax ne léegi diine ji euh, euh, kilifay diine yi dañuy rax ci politique dañuy yëngu ci politique waaye moom gis nañ ko ci ay kàddoom léeg-léeg ci ay waxam da ngay gis ne day dem sax ba ngay jàpp ne dafay dafay euh, dal ci kaw ñi nga xam ne sax ñooy njiitu euh, ñoo yor ñooy kilifa aada yi euh, moom nan la daan dundee politique waxuma mu ko daan def waaye ci moom jëflante mag diggante mag way politique yi ak ban taxawaay la ci amoon. góor gi politique day demee nii moom mu demee nii góor gi. Hmm. moo tax ne ñu bari dañoo wax ne dafa contre politique. Hmm. ñu bari dañ ko doon wax. Hmm. contre def ko xamul xamul luy politique. nit ki nag bu xamul dara mhm. soo ko ko buggee xam xamloo du ko mus a xam góor gi mhm. jàngale bu rëy nguur bu fi nekkoon démba mhm. bari na kilifa bu siiw tegul si yow loxo amut waaye moom siiw na ñu fi siiwoon yëpp moom moo leen gën a siiw si taalibeem te def doon ko doon dal benn jotaayu toog nañ gàmmo gàmmo London muy wax mu ne diw mu jaar ci touram mu ne jur man mi jigen moma ma jur mhm. mu na am yermande si jami yalla yi mhm. mu ne amal yermande si jami yalla ta bobo booba diw moomu kenn ñemewut a wax joxoñ touram defa jaar ci turam kon yaangi dikkat ci fitam gi xam nga neena la sank dinañ wax ci njàmbaar tif gi <laughs> defa jaar ci touram mhm. mu diw la jur yalla may la taranga nga elif Gambia man tam jigen moom la jigéen moo ma jur waaye li ma lay wax ne jaami yàlla yi amal yërmande si jaami yàlla yi mhm. te munoo tëj kenn munoo rey kenn munoo munul ta tëj kenn mun ta rey te man mii kenn du ma tëj benn police mu benn para mu ngi si ganaam para dal di ko xool mu ne para bu koy tëj amut judawut gàmmaloon noonu fi mhm. gaañu mu ne para bu koy tëj amut oh, waaw kon góor googu loolu jàngale la mm-hmm. moom politique waxu si dara buggul ko sax buggul ko sax moo tax ne am na ñuy ñëw si moom mm-hmm. si wàllu pol ñu ñu ñëw si moom parce que ne loolu yàlla moo ko ko may mm-hmm. benn saaba ñëw na si yeneen mu ne ko kan la yàlla gën a soppu kan la yàlla gën a soppu ak naka la nit ki di def ba yàlla gën ko soppu mu ne ko ahabbu nnaasi ila allahi anfa'uhum linnaasi ku yàlla gën a bëgg mooy ki nga xamante ne hmm. eh, ku gën a bari njëriñu jaami yàlla yi hmm. kon nag góor gi kii dafay ñëw nga am soxla suma par parti bi nii suma parti bee ne suma parti bee mu ñaanal la hmm. waaye nag pour mu fàttul la amul dugal a xalwa dugalul fii benn police famille xal xalwa ñëpp la emale mënuloo ko jox dara li nga xamante ne day tax bem la dugal xal xalwa faatiha salaatul faatiha bi moo jox Moustapha Kébé bi moo jox eh, Euh, naka la sax miskin bi. Mhm. boobu lay jox borom oto yi benn ministre du dem si moom ngeen dugg si biir si biir nekk foofu. si mu foofu la miskin bi ñëw mu ñaanal la. mooy yemale woon ñëpp rek. mooy yemale ñëpp. moom xoolul kenn xoolul politique xoolul borom alal bi mhm. xoolul miskin bi. Mhm. ñëpp la moo xoolee mooy boti laa ilaha illallah am naa li ma leen njëriñ soo ngeen ko su ngeen ko utee ngeen ngeen dal ko am. macha moom mooy njëriñu jaam yàlla yi. kon moom daal politique nii la awoon moom mu aw na mi ngoog euh, mbokk yéen a ngi bàyyi xel Eye Africa TV dinañ ubbiwaat bu mu jokko gi ci kanam ndax waxtaan wi nii la Eye Africa dina leen ko digtal du yem rek tey ndax it nag euh, góor gi ma ne suñu ko waxtaanee ci benn jotaay bu ñu doon def sax téeméeri jotaay ci bés bu ne euh, du ñu rek mën a waxtaanee lépp waaye dinañ ci jéem ndax nag Eye Africa TV moo leen waxoon ni ci seen li ngeen xam ne moom ngeen bëgg ci lay rek daal di dox su ko defee rek ci diggante mag soxna yi ndax gisoon nañ waxtaanam yu bëri da nga gis muy soññi soxna yi di joxe ay ay yenn li nga xam ne sax mooy ay lu ñuy waxtaane ay masala yu xewoon ngir rek euh, gën a soññiwaat ñi nga xam ne ñooy soxna yi su ko defee dañu seetaan euh, benn vidéo dellusiwaat ñu waxtaanee digganteem ak soxna yi ak ni mu leen daan euh, diglee ci buy waxtaan ak ñoom dama dem Fuuta ci dëkk bu ñoo wax njum kër ga am na fa néeg boo xam ne am na fa juróom benn weer ak ñetti fan ñu doon fa def conférence ba ma jëmee ba jeexal benn waaye ñëw ne ma ah Sëriñ Kebe yow dëkkaloo Fuuta waaye góor nga de xam nga Cheikh Omar lool ma ne ko dama ko bëgg suma doom ba góor bi ma mujj am moom laa ko tuddee mu ne ma waaye xam nga lu tax ñu tuddee ko njool Fuuta ma ne ko loolu de ma ko xanaa nga dimbali ma mu ne ma dafa coow ak waa Fuuta moo tax ku ne góor ñee em waxoo dëgg ku ne jigéen ñee emit waxoo dëgg ci Cheikh Omar la góor ñi emut ci yaayam la jigéen ñi emut Cheikh Fuuti coow li tàng ci biir dëkk bi gaa yi yëpp mer ku dem sa kër fekk mu ngi toog ku dem sa kër fekk si Omar toog ku dugg sa kër fekk mu ngi toog xama ñaata si Omar la kera góor gi ne ma ci lañ ko tuddee njool fuuta ma ne ko dëgg la waaye mu dem ci réewu arab fekk ñu bind mislu ko alf noo mën a toll sa junnee ma ci réew mi si Omar ne loolu xamut fi ñu ko bind tablal boo xam ne xamula seel gu ko jot si Omar kenn xamul lu mu def xama dafa naaw xama nu mu def waaye fa mu taxaw la taxaw far mbind mi bindaat fa nen ne arab bi waxul dëgg mislu ko alfu noo toll ci xam-xam sa junnee ma ngi ci réew mi mu ne loolu amut mu far ko bindaat fa leneen te yéegut amut si yàlla xamul fu mu arab bi benn arab yi yéem ko ne ko yow ndax ku mel ni sa baay am na seen réew mu ne ko am na fu ne ku mel ni suma baay am na fu ne ku mel ni suma baay am na fii sax xam nga lu amul am ne ku mel ni suma yaay moo amul fenn ma dem laajte ji de ew ma ñi ci ñi santul taal déedéet dem naa ba ci ñi sant taal ma toog ak ñoom ñu ne loolu la jigéen ñi moom ñu ne Cheikh Omar maam Adama daay am wu ji maa Sayid maam Sayid Muxtaar mooy baayam takk jabar muy ñëw de sëy si benn néeg a fi ne ak néeg xar yi maam Adama caam ne ko xaaral ma bale néeg xar yi ma tëxu fa ndax gan ñi bu ñëwee bu ñu xam ne benn néeg lañ am ban benn jigéen nanguwul ko ci yéen ker ba mu songee nga toog ngaa mer ne wujj du fi am dem uuti sëriñ sëriñ bi dala nax lekk sa xaay li nga eh, faye ji sëriñ toggal ko sa jëkkër ganaar mu kontaan waaye eh, bi yëpp da ko yàq ci mbedd bi te du tere moom sa jëkkër laa doo doo ci man dara amul njëriñ toggal ko ko tiraanga mu ñaanal la wala nga sadax ko ko mu ñaanal la su ko yàq sa ko sa yoon nekku ci mi ngoog eh, li ma lay wax gis nga nettali bi ci soññ jigéen ñi jigéen taxawaay bi mu war am bu bëggee am euh, doom ju ju baax gis nga ni mu nettalee Cheikh Oumar Fouti Tall ba tey da dikkaat ci nu mu nangulee yeneen kër diina yi ndax li mu nettali du moom du sëriñam waaye sëriñu keneen la waaye am na woyefu nettali kooku loolu ngir soññu jigéenam yi taalibe yu jigéen ñi ngir ñu gën a góorgóorlu ci seen sëy loolu mooy mbir yàlla boo gisee yàlla bi mu yónnee yenent bi waaye day wax nag jaar day wax jaar jaar Moussa jaar jaar Isa jaar jaar Souleymane mooy mbir mbir yàlla góor gi mane la mooy alquran moy dox mhm. moom fu moom su toogee mhm. su la waxalee këri Cheikh Omar fuuti Tall mhm. da ngay foog ne ne moom taaleen la bu la waxalee Maodo Malick da ngay foog ne ne moom ak Maodo Malick ñoo bokkoon jamono wallahi bu la waxalee Cheikh Ibrahima Niass Baye Niass mii su la nettalee mbiri Cheikh Ibrahima Niass da ngaa foog ne sax moom taalibe baay la kon xam nga lu war a loolu dafa ràññee dafa xam ne ku ko baaxal baaxal sëriñ sëriñam moo baaxal ñale kon nag boo nangulee ki baaxal sa sëriñ war ngaa nangul moom moo baaxal sëriñ ñeneen ñi moom foofu la ràññee góor gi foofu la rawee jaami yàlla yi amul fiiraange amul xañaam nangul na ñépp ku baxut mono waxtane mbaaxi jamur, gorgi gi nak dafa xam ku bax ki mooy yalla motax ne fépp lepp lu yalla def rek mu apprécier ko macha allah ak fum ko def nak mhm. ak fum ko def su ko defé jigen, jigen mhm. yang gi ya nga wax ne comme euh, nu mel ak jigen yi mhm. ci di len jangalé di len soñi euh, ci ndeysaan euh, ngir rek beugal len lu bax ngir rek beugal len ay ay bant yu mel ni mom. naam sax euh, dina jafe waaye noonu la leen koy bëggalee. defar ràññee rek. Mhm. ràññee moo am solo góor gi àq bu mu jox jigéen. Mhm. loolu la jox ku ndaw. xale bu ndaw. Mhm. parce que ne defar ràññee moom sagoom jaami yàlla yëpp nañ baax. te nag usine buy defar jaam yàlla mooy jigéen yi. mooy jigéen yi macha allah macha allah sëñ bi ak jigéen tey soo ñu doon wax yow mi nga xam ne euh, xam nga sëriñ bi euh, ci daan nga ànd ak moom ci lu baree baree bari ci daan tukki euh, da nga daan ànd ak moom. Mm, ci su daan dem di def ay waxtaan dang nga daan ànd ak moom gàmm yu baree baree bari defandoo ngeen ko bëggam jigéen si rek bëggal leen lu baax waaye nag am fum mu leen fonk ndax xam ne jigéen mooy kennu àdduna sëñ bi ak jigéen soo ñu doon wax lan nga ñuy wax sëñ Moustapha. waaw Maulana Cheikh Saïd mooy nit koo xam ne amul peg am na tàmbali waaye amul pegg yàgg naa di ko wax. loolu mooy lan mooy ak cofelam ci jaam yàlla yi kenn mënu koo nat soo gisee jàngaleem lu ci gën a bari mu di ko jëmale ci jigéen tey société bi lu fi baax lu ne rek daf ko yàgg di ko wax lépp lu baax ci société bi jigéen a ko baaxal. mu ne waaye lu fi yàqu it ci jigéen la yàqoo kon nañ fexe fonk jigéen ñi defar leen ndax jigéen kat dafa nekk koo xam ne nii mbindeef la boo xam ne dafa xaw a néew doole waaye dafa am lu ko manqué lu mu manqué la jigéen manqué nag toujours boo xoolee ñaare bu jigéen bu ñu ko mayee borom kër ñi di ko yeb kàddu kuy sànni kàddu ku ne rek muñal jigéen matul mm-hmm. xoolal ñaari kàddu yooyu de muñal kàddu muñ mhm. lépp lu ñu muñ neexul jigéen matul te foog naa ne kàddu doo ci mas dégg mukk li ñuy wax la jigéen manqué kon Maolana Cheikh Seyd la jigéen manqué daf ko xam mhm. te duñ koy wax ci duñ koy waxtaan ci mbedd moo tax mu di ko xamal ay taalibeem di ko xamal njabootam mhm. ba tax suy waxtaan mu indi toujours di indi di jàngale jigéen ndax jigéen kat suñ ko jàngalee ba ñu mën a xam luy jigéen dëggantaan su boobaa société bi dina baax daana waxit ne liggéeyu ndey añu doom mu ne tey benn doom a ngi nii doom ju baax mooy faj soxlaay koñ bi mooy yaakaari xale yi mooy yaakaari mag ñi ñu ne kuy yaayam kii kay ñàkk mënta ñàkk a mel ni diw mooy yaayam nee nga toog ba mu yàgg am beneen ku génne fële mun ñi dàqee ko sàcc ñi jàpp yóbbu ko police ñu ne diw dem na police. Hmm. moom miy faj gàcce yi ñu ne kooku doomi ndeyam la. mu dem làmb poste bi ci police yi ñu génne ko kon ana liggéeyu ndey añu doom ñom ñaar ñoo bokk ndey ak ki kii sàcc nañ jàpp ko police kii mooy faj bu mu gàcce yi. sëñ bi bëgg sëñ bi bëgg a wax. li mu bëgg wax foofu li tax ñaar ñi bokk benn ndey. Hmm. kii doon ku ñëpp sopp muy ndax defar la muy defar kii doon ko xam ne koo gis doo bëgg a bokk ak moom ndax jëf ju ñaawe ndax jëf ju ñaawee te benn jigéen jur leen mm-hmm. kon sëriñ bi moo tax muy jàngale jigéen mu ne jigéen mooy màngasinu yàlla mm-hmm. yàlla wut góor ci waxin ngeen baal ma ci kàddu yóolu mm-hmm. yàlla jigéen la woolu ba tax na moom la def mangasinam magasin boo xam ne lépp lum mu nar a indi ci àddina bi magasin boobu la koy denci nine months door koo génne fii ci àddina kon jigéen Mawlana Cheikh Seydi mu ne jigéen ëmb na ba tàyyi lu ko gën te xamu ko kon jigéen su fekkee ne góorgóorlu na ñu digtal ko ba mu jaar fañ ko war a digtal mu jaar foofa rek mm-hmm. su boobaa la nga xam ne moo nekk ca magasin ba ko suñu borom dénk mm-hmm. bu ñëwee rek duñ ko duñ ko duñ du am wàll ak police bu ñëwee du am wàll ak butéeli sàngara loolu moo tax Maolana Cheikh Seye toujours jàngale mu ko daan jëmale foofu ndax doomi soxna yi mm-hmm. bu ñuy sumil daal bu ne rek jigéen la jur fa mu jaar ba jur mën a jur kooka looloo tax muy jàngale jigéen ñi président his excellence fu mu jëm ñëpp taxaw di ko teeru fu muy romb kenn ku ne da nga wacc ku nekkon ci kotal bi wacc tali ba president romb mhm. te jigen ko jur dafa am fu jigen ji jaar ba tax mu meuna jur his excellence president kon su kenen, kenen koo xamne jigen nga rek mhm. bo deglo Maolana Cheikh serou Omar mhm. mu fekk la ci sey da nga jekalat sab sey ba meuna jur ci dom yu bax ya. ki nekkagut ci bu mu sey dana fexe ba ame mooy bu mu sey mu am jangat bobu, ba bu nu mën a teg baaraamam ci kaamil ne hmm. dinaa mën a jur doom joo xam ne doom ji ñu sumil dàll la lii moo taxoon Mawlana Cheikh mu noonu mbokk yéen a ngi seetaan Eye Africa TV dañuy ubbi waat rek bu mu jokkoo gi ndax xam naa ne yéen ñuy seetaan du ñàkk ngeen bëgg a dugg tàbbi wax ci jëmm ju euh, baax ji ñuy euh, daal di rek waxtaanee euh, muy rek Baye Cheikh Oumar Kébé Euh, mën ngeen rek euh, jokkuñu ci bu mu jokkoo gi di 23 23 213 su ko defee rek euh, ñu daal rek waxtaanee sëñ bi yéen nag seede yi ngeen di am ngeen daal di ko ci rek indi incha allah yaay maam moom dafa yoroon benn méthode muy waxtaanee waxtaan boo xam ne daf koy def ci kaf nit ñi di ree fu nga nekk di nga mën a békk waaye daf lay jàngalaale maanaam léeg-léeg mu tooñ ndongo yi ne sama mbokk ndongo yi mm-hmm. léeg-léeg mu tooñ ne sama mbokk diw fekk it am na message bu muy joxe loolu euh, am ñu koy wooyee pédagogie mu nekk euh, ab euh, metod loolu laa la ma la. Mm. mooy Qur'an buy dox. Qur'an mm. mooy bashiran wa nadiran. Mm-hmm. Qur'an tey day ñëw. Mm. dumo rek ñàngal rek. ñàng stress rek ëllëg mu ñëw. Mm-hmm. mu nooyal ba nga foog ne safara amul. waaw góor yàlla noonu la war a mel moom da ngay mu jël kàddu. kanamam bi yëpp kanam bi euh, yëpp changé am na ku dugg euh, mbay Mbaye Sinthiou Alaaji noo ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam mbay mbasu euh, yaa ngi ñu woowee Sinthiou Alaaji ñuy waxtaanee góor gu tedd gi yan seede ngay indi ci moom. waaw ngi lay fay. di mhm. nga yokk kàddu gi rek. Euh, di rafetlu jotaay bi. macha allah. Euh, defal ngeen ko ku ko xam ne jarul ëpp na loolu. Mm-hmm. waaw defal ngeen ko loo xam ne ëpp na loolu. ëpp na ko mm-hmm. dëgg la dëgg la. ñuy wax maanaam bàyyi wat tëdde ci Gambia fii tali yëpp waroon nañu am programme yëpp programme yëpp tali yëpp waaye yéen seen barki alama jërëjëf dëkk barki jënd yéen programme bi ñu ngi rek baax a baax a baax ñàkk nañ na ko rëy ñàkk nañ ko mhm. amaat mhm. ñàkk nañ koo xam ne ci lépp la waaye ñàkk nañ koo xam ne daf ñu ko seen ci pax génn ñu ci ci leer goo xam ne moo moo gën lépp képp kuy taalibe xam nga ne ci la baax sa jëlee ci la yóbbu moo gën a baax ñu la kepp kuy talu yi Maolana bay ëpp wallahi xam nga sa ndëgër xam nga loolu rek moo ñu mission jaamu yàlla bi jaamu yàlla yëpp ci bëgg ñu nekk ay nit yàlla pur te loolu def képp kuy talu dem rek xam nga ne loolu la dafa kon kenn amul fayam xanaa ñu jéem rek loolu gisee mu naan wax ni képp ku yàlla may mbaax nangu leen ko baaxam macha allah képp koo xam ne moom baax nga su si mbaaxu Mawlana Baye Seck si kon soo wéedee kooku rek Baye Seck la wéedi moo tax mu daan wax ni képp ku yàlla may ba léegi baax rek si la baaxee. léegi nag yow soo wéedee keneen ku baax rek Baye Seck la wéedi mhm. loolu mu daan seen taal bi képp ku yàlla may mbaax rek ñu ngi leen ko baax mhm. te koo leen gis rek daf leen ko ni ñoom ñoo leen jël wàcc seen bopp. moom mu wàcce woon bopp kilifa la de a Gambie a xamuñ ko ne ba mu dem wallaay dëgg la waaye li ma naqari rek dañuy xaar ba mu dem rek ñu fekk si gannaaw bu jaan bi di raataat mhm. waaye suñu xel fees mbokki taalibi yëpp mhm. jërëjëf waaw di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram rek amin amin tas ñu ci barkeel yàlla tas ñu ci barkeel amin amin yàlla xam na ne lépp lañ ci bàyyi dara du yàqu léppay mat amiin jërëjëf jërëjëf Mouhamed. kon bu defee imam bàyyi woon dem lépp rafet. incha allah jërëjëf Mouhamed. lii tam ñu si bàyyi noonu lay rafet. incha allah. parce que yàlla kenn du ko defal lu baax mu fay lu bon loolu lu mu ci nekk. déedéet. parce que li mu defal yàlla loolu dafa ëpp. kon ñun ñëpp am yaakaar ni lépp dana war a dana dana rafet ci gannaaw. macha allah jërëjëf Mbaye. moom jërëjëf ci jërëjëf ci nawet bi ñu yëg la ñu réer waaye bàtt ñi moom ñun xam nañu jërëjëf. parce que moo nekk. jërëjëf. jaajëf euh, Mouhamed euh, ñu ngi won fu am solo euh, ci wàllu ki nga xam ne rek moo di sëñ bi waaye dafa am lu ñëw sama xel mi léegi ma bëgg rek ñu waxtaan ci xam naa ci kanam sax dinañ dikk nag ci ki nga xam ne mooy Cheikh Bassirou kebe moom it ñu waxtaan ci moom ndax nag mu ngi war a mu ngi war a toog fu fu fu fu rëy waaye nag kilifa gi préparé na ko. balaa fiy jógee ndax am na lu ko wane misaal bi ñëpp gis nañ ko ci gàmm gi sëñ bi préparé na ko laata laata muy dem loolu eh, dinañ ci dikk ndax eh, wàllu baatin la ta xam naa di ngeen ñu ko di ngeen ñu ko tojal eh, yéen ñi le waaye laata ñuy ñëw foofu rek dañuy dikkaat ci sëñ bi tuuti ndax ñi ngi woon ci fu am solo foo xam ne ñu ngi ko woon rek daal di laal mooy rek sëñ bi ni muy waxtaanee méthode bi comme xam nga yàlla bu yàlla bi mu nee yenent bi mm. daf ko yónni si jaami yàlla yi mm. kon yenent bi dafa xam jaami yàlla ba pare man a waxtaan ak ku ne mm-hmm. am na jotaay bu sëriñ bi di toog su moo waxtaanee yàlla mm. yàlla ñooñu yàlla safu leen loolu taxuñu ñëw gàmmu am na nag ñi nga xamante ne yàlla moo leen tax a ñëw mu waxtaanee yàlla mm-hmm. am na ñi nga xam xamante mbiri kaf ak reetaan rek mm-hmm. ak rek loolu rek moo leen a ne moo tam mu laal tamit foofu am na ñi nga xam xamante ne lépp loo leen wax tant que waxuloo leen jigéen nu moo toppatoo jëkkëram euh, Samba Ba Banjulu Nding gis nga rek sëñ bi ñëpp xër ci moom Samba Ba euh, Banjulu Nding ñoo ngi lay nuyu euh, di la dalal ci programme bi. waaw ah, maa ngi nuyu di leen siyaare. jërëjëf ñu ngi waxtaanee góor gu tedd gi yan seede nga am ci moom. waaw maa ngi koy dégg oustaz eh, la doon. amul jafe-jafe. Euh, ñun ñëpp taalibe Cheikh lañu. Hmm. maa ngi koy siyaare maa ngi koy jàll imaam Ratun bu nekk Banjul. Hmm. di koy jàll mbokki jullit yi nekk Gambie yëpp ak Sénégal. Hmm. Euh, góor gi de man miinuma ko waaye dama de dégg dama dëkk dama dëkk ak ay taalibeem. waaye li ma am taalibeem yi daal. dëgg dëgg nit yi yàlla la nit yi yonent bi la nit yi Cheikh na Amar si jàll. Mhm. Mhm. macha allah na ko yàlla yërëm. amiin na ko yàlla xare àjjana yàlla na ko yonent bi teeru. amiin amiin amiin. taalibe yi nañ góorgóorlu ñu roy mel roy mel ni moom góor gi jo dafa jafe mhm. la woon ndeysaan. ku mel ni moom jafe na de. loolu dëgg la. Mm-hmm. dëggu na dëggu na ci tari tarika bi mm-hmm. dëggu na ci lépp mi nan ko mi pullo dëggu na ci de mm-hmm. dëggu na de góor gi dafa dëggu de yi ngeen yi ngeen li waar taw bi taw bi bi muy jox képp ku nga xam ne ni jullit nga xam nga de xam na lu war a xew wallaay ndeysaan kon nit ku tedd la nit ku baax la nit ku fonk tarika bi la ku gëm tarika bi la moom gëmu dara lu dul yàlla maa ngi dëkk ak ay taalibeem. ko yàlla yërëm yàlla xare ko. amiin waay amiin jërëjëf yàlla allah jërëjëf. waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ba gis nga rek sëñ bi sëriñ bi ñëpp la woon ñëpp la xajoo woon ñëpp ko bëggoon euh, dañuy dikk ci kii li mu wax nii la rek euh, mu ñu nettali wàllu taw bi waaye di ñu nettali sëriñ bi ngir ngir ngir roy ci moom nu mu jëfee ndax ki mu doonoon ndax dafa kenn loon yàlla bu mu jeex tak nëbboon boppam ci lépp moom dara yi àdduna safu ko woon lu dul rek yàlla nee na yonent bi nee na ndax néewaana nag ñuy ñuy tàntal yonent bi di waxtaane yonent bi am na ñuy tàntal yonent bi seen bopp la ñuy kañ ak seen jëfu maam waaye moom day tàntal yonent bi di wax ci yàlla di wax ci yonent bi loolu la kii di seede kon kii Samba Ba ñu ngi koy ndokkeel a jaaraamano feewi yàlla yundu baraaji mm-hmm. kon lii mu ngi lay jàngale mm-hmm. hadis bi ma gisoon si benn téere bu tudd Nuzhatul Majalis mm-hmm. xam nga ni kii Pël la soose woote na fi. Mhm. même ay joola am nañ yéene pour woote. Mhm. xeet yu bari am nañ yéene pour woote. Mhm. te moom ku ñoo wooteel ak ki leen tax a jóg mooy lan benn góor yi góor yàlla mu doon olof. di lakka baatu olof. waaye ñu ko ñu ko topp ñëpp am nañ façon xeet bu nekk. yeneen bi dafa toog benn jamono mu ne. keroog bu mu ràññaanee yàlla woon na ko ay góoru yàlla ñi nga xamante ne am nañ maqaama bu gën a foor maqaama yeneenti yàlla yi mu ne moom keroog bu mu rañaane mhm. yàlla woon na ko ay yeneen góoru yàlla duñ yeneenti bi duñ saxaaba duñ dara waaye am nañ maqaama fa yàlla maqaama googu moo gën maqaama yeneenti yàlla allahu akbar aha comme ni ko waxee allahu akbar mhm. benn waa ji nag si suuf mu ne yeneenti yàlla fa sif lanaa hum waxal ñu ñoo ñooy ñan ilaha illallah yeneen ku am ku ku nar am maqaama kerek bés bank te hmm. sa maqaamu yeneen ti yenenti yàlla hmm. ñoo ñooy ñan macha allah mu ne qawmun min qabailin shatta wa buldaanin satta maanaam mu ne mooy ay nit ñi nga xamante ne hmm. ñu jógee ko si ay xeet yu utee xeet yu utee dëkk yu utee ñoom ñëpp ñu bokk taxaabaw fii xubbillah ñoom ñëpp ñu bokk si benn bi maanaa si soppu yàlla te li leen boole mooy yàlla ak yenent bi ñooñu yàlla mi leen boole noonu. Mhm. ak jaamu yàlla boobu dañoo am kerek bés penku. Mhm. maqaama bi nga xamante ne yenent bi amul ko. kon nag góor yàlla gii mooy Maolana Cheikh Saïd Omar Kébé mhm. dajale na pël yi olof yi joolaa yi soose yi yëpp si bugg yàlla si baatu laa ilaha illallah baatu salaatul fati macha allah. macha allah balaa balaa may ñëw si yow sëñ Moustapha euh, maa Malick Sarr mi ngi ñuy woo sëñ Malick noo ngi lay noo ngi lay nuyu di la dalal ci jataay bi ñuy waxtaanee ku tedd gi yan seede nga am ci moom euh, Malick Sarr depuis Kunkujang. Euh, inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mhm. wa na'uudu billahi min shururi anfusina wa sayyi'aati a'maalina. ñu ngi sant yàlla bu baax. di rafetlu seen plateforme bi. macha allah jërëjëf. góor gi nag ñi waxee tey mooy ne lépp lu yàlla doon wax ci alquran digganteem ak ay taalibeem ak ay sahabaam yàlla dafa na yent bi ne ko walaw kunta fasdan xaliisa alqalbi lan faddu min xawlika soo nekkoon ku jafe ku ñàng ku naqari deret ku naqadee toogat kon ñi lay wër ni kenn du la wër wallaay ndeysaan waaye oustaz Thiam oustaz Moustapha mii toog mhm. li may wax leer na leen nañ yonent bi sallallahu alayhi lépp lu mu doon jàngale moom la sëriñ se jàngale dama ko dégg mu firi benn hadis boo xam ne dama ko daan firi mhm. muy hadis bu gàtt muy ban pour won waa réew mi mhm. won adduna bi ne kii xam-xamam bi jéggi na géej gi. allahu akbar jéggi wallahi wallahi mu ne bi ñuy wax laa dara wala diraara. Mm-hmm. nekkul ne bul lor bu kenn lor de. Mm-hmm. mu ne lor bu lor. Mm-hmm. te yow bul lore. ndeysaan wallahi ndeysaan mu ne maa ngi wax ne ku ma tooñ naa la. wallahi ku ma xam ak ku ma xamut képp ku conseil bu waxee rek. Mhm. ñu ne kii moo moom rek moo ko xam wala kii rek la defal dafa tabe ci xam-xam ci alal ci njaboot ci jikko ci doxalin ci lépp la tabe dafay waxtaale ba yi ne képp ku fonk sa baay ak sa yaay bu duur maag yow mhm. kii naxut kenn wallaay wallaay ndax dafa gëm ne baay ak yaay ñoo la jur mhm. jàngal la mhm. yar la balaa nga taseeg moom mhm. moo tax mu ne ku leen fonkul rek man doon maa yow sëñ Kébé wallaay kii naxut benn taalibe naxut doom naxut jabar naxut dëkkandoor naxut réew mi naxut aduna bi te defar na taalibe bi yëpp defar njabootam Gambie nag ñoo ko déglu ñenn si ñoom ñoo ko déglu waaye paro naa defar réew mi yëpp waaye yéen nag ay Africa. Mhm. sa kaw rek. jërëjëf. ndax daf leen ñaanal. Mhm. te yal na ñaa ngi nangu. amiin. ay Africa ni ngeen tudd. Mhm. yal na tiim télé yëpp. amiin. te fu nit nekk si Gambie Sénégal adduna bi Amérique UK di leen dégg di leen gis. amiin képp ku fay liggéey yàlla nga ànd ak kaaraange. amiin waay amiin. yal na yàlla barkeel seen télé bi su barkeel Serigne Saïd. amiin incha yàlla yokk seen télé bi su darajaay Serigne Saïd. amiin amiin waay. képp ku fay liggéey yàlla nga barkeel yàlla nga am fan yàlla. amiin incha allah seen mbokk la Malick Sarr wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Malick euh, bi laata euh, ñuy ñuy téyandi sax euh, kii bi li ma lay laaj rek mooy yaa ngi dégg ci li muy wax ne defar na ñëpp soog dem góor gi wax na ak ñëpp soog a dem góor gi wax nañu lépp euh, amul dara lum ñu bàyyil mm-hmm. ndax booy seetaan tey jii góor gi bu ñu neexoon bu fi desaatoon sax ci su desaatoon ak ñun si jaayir sax su ko neexee bu gàmm jotatee bu mu toog bu mu wax ak ñun ndax suñu neexee waxtaan yam ñu daan wax ca gàmm ya nañ ko tegaat rek ndax moom wax nañu lépp mm-hmm. nañu lépp xam nga euh, garmi mm-hmm. Maulana Cheikh Saïd tey li tax ñiy wax ne moom demut te bi ñu commencé programme ba léegi nga ne dem na ci ba zahir dem na ci zahir waaye ci baatin mi ngi fi mi ngi fi mhm. ndax tey scrim bii ngeen a teg nii ngeen gis fi Mawlana Cheikh Saïd ndax lii dana fi jógati abadan du fi jógati mhm. ay vidéo am mhm. ay son am ñu koy déglu loolu du fi jógati ci àddina bi kon dafa méngoog njàngale bi nga wax ne dafa jàngale lépp ba mu daj alxuraan boo déparé bàqara ba minal jinnati wan naasi ngay jàngaat li nga jàngoon rek ngay jàngaat moom rek ngay jàngaat kon Mawlana Cheikh Saïd dafa ñëw nekk ab yonent ci umma bi hmm. su ma waxee loolu nag am na ñu may déglu ñoo xam ne ñi nga am fuñ jonkanu pare pour wéd ne ñoom dañuy wax ne Serigne Saïd yonent la alquran ma ko wax wali kulli qawmin haadin mu ne nit ñu nekk rek hmm. am na ab yonent bu ma yónni ci ñoom mu di leen di gindi maanaam xeet wu nekk rek hmm. am na kuy seen ku leen di gindi kay gindi nag kooku mooy ab yonent lañ ko yónni mooy lañ ko yónni ne ko gindil xeet wi kon dañ ko yónnee woon ci umma bi pour mu ñëw gindi leen. lam woon doon leen gindi gindi nag wax dëgg yàlla. su ko neexee taxaw wax la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne hal balaxtum. macha allah tax parce que wa maa ala rasuli illa al balaax ndaw dara waru ko lu dul jottali mu nekkoon koo xam ne daan na wax kàddu goo xam ne li ma jàng ci téere yi xaj ne man bariwul de imaam mi dajal téere yi nag ak ñi ñuy déglu ku ci mas a gis jàngagum benn téere nga gis fa taarixu ñi ne nitu yàlla bii de bind na ni moom neexal na yàlla ba jubóog moom amul ci mbind nit yàlla bu ngeen dégg mu wax ko ci téere mbaa mu di wax ci son ne man neexal naa yàlla bu jubóog moom kudul Maulana Cheikh Seyd amul ci àddina bi ba àddina sosoo ba léegi moom mooy taxaw wax ko waxati ko ci microphone mu ne man Saïd Kébé de balaa may demee di neexal imam Abou Thiam wala may neexal président wala may neexal ab ministre wala may neexal borom alal wala borom xam-xam mm-hmm. ma teggi ko fa la ma koy neexalee bu ma ko neexalee yàlla mm-hmm. jubóog yàlla te neexal naa yàlla ba jubóog moom te moom boromam rek la ragaloon kese mi ngoog ñu daal di jël euh, Ali géey mu ngi ñuy woo euh, sëñ Guèye noo ngi lay nuyu di la dalal ci programme bi bàyyi la nga indi ay seede euh, ci rek jëmm ju tedd jooju nga xam ne rek moo ñu dëddu ci Zaïre sëñ Ali Guèye ca Coste Route. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mbaye. jërëjëf Guèye jërëjëf Guèye. ñu ngi rafetlu plateau bi bu baax a baax a baax. doo ñoo xam ne fii parce que tey la waaye sa former classmate la Aly Gueye Serekunda sëñ sëñ Aly Gueye waaw maa ngi nuyu Gueye maa maa ngi nuyu ñaari kilifa yu tedd yooyu di Baye Abou Thiam ak Baye Moustapha Kébé ñu lay fay ñu lay fay di wax Baye Moustapha Kébé yow ñu lay sant di gërëm ñu la koy delloo jërëjëf parce que jamono tey mën a xam suñu loxo ndeyjoor ak suñu loxo càmmooy si yow leen koo xamee yow yaa ñu ubbil pour si kër bàyyi seet tëdd. la. kon gi demam bi nii yéem nañu trop waaye dinañ ko jooy. Mhm, mhm. dëgg yàlla bàyyi seet kebe nekk na koo xam ne xale bu ndaw bu gën a tuuti soo demee dana la dalal. wax la yalla jubanti mhm. la la la bo demé dox leen ne ni liggéey leen respecté waxtu yu juróom iskay wallahi wallahi ndeysaan kon ñun jëm jooj wala man man ali gay suma demé ba mëna xam suma loxon loxo jor ak càmmooñ xam kan moy yalla suñu borom ma ngi bay sa ci si loolu bu baaxa baaxa baax ma sha Allah ma sha allah ko ñaanal fam ne yal na yàlla yokk leeram amin amin yàlla taas ñu si barkeem amin incha allah yàlla yóbbu na ko yàlla gërëm amin incha amin waay wallaay xol fees na Baye Moussa be siyaare nañ bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf suñu Ali siyaare nañ bu baax parce que buntu kër Baye Seydi lépp si xam wala lépp luñ si man yow la yaa ñu ubbil buntu yow yaa ñu jox tarbiya mi ngi noonu jërëjëf mi ngi noonu seede yi rafet na waaye laata ñuy dikkaat ci loolu dañuy wax ci wàllu yëg-yëg mm-hmm. yëg nit sëñ bi dafa yëgoon nit mm-hmm. ndax am na dinaa leen digtal benn vidéo ci gàmmu la woon euh, ndeysaan mu ne dafa romb gis taalibe yi ñenn ñi nekk ci sedd bi ndax tant bi yeggul foofa yaramam daw ba mu wax gars yi ne leen tant bi dafa naw dafa waroon jéggi foofu nga xool nu mu yëgee nit ñi ndax mu ne doo dajale fi nit ñi ñu nekk di yëg tàngoor wala seddaay yow nga toog ci biir kii ñu teelu vidéo bi te dellusiwaat démb yaa ngi maa wax naan lu ne ñee def anaamat lu ne ñee def nga foone sa yoon ñu foone sa yoon nekku ci waaye lu ne yaa ngi xam nit doo ànd ak doomu aadama yi ñu fonk la lool jaral nga jaral leen lu ne yow doo leen seet ba xam ci luñ ne ak naka lañoo ñoo doxee lu leen a yàqalal lu leen a jagalal boo ko defut amula ngor xoolal li fanaan ci biti am na ni ci tànt bi bi maa julli ci gis naa ko li fanaan ci biti sedd bi tax ñu tëdd xem na ni li ci tànt bi te waxoon naa leen na beneen tànt ñëw Malick déwén bu ngeen tàntalewul ndar ko saga ba ca jumaa ja nit ñi duñ fi ne ren laa leen ko wax tant bi dana dem réen ci jumaa ja li nekk ci biti xem na ni li ci biir bi maa julli ji gis naa ko ah xoolal li taxaw ni mu bëri ko rek su ma mbokki ndongo yi kuulmaan yi waaw ñaari kuul lañu xam nag ñaar xale yëpp xam nañ ko léegi ci man di nga ndongo bi bu xamul dara su ko morom ko ne eh, booy naka dee bi man mu nekk ah, kuul yu ndaw yooyu rek taxaw la dégloo ndax danga ko may dara waaye su poos bi defee dara booy naka dee bi naa kuul kuul mu ngaa dem du taxaw léegi tey nga ñaan ko du taxaw de waaye su ngeen buggee affaire bi kuul lu ngeen am yóbbul leen ndey ak baay dem xëyi ba wàcc wecce def sa poos indiwu la banaana indiwu la pomme indiwu la orange te yaay ak baay ak gi bëggagu laa yokku euh, li ma doon wax rek mooy hmm. yëg gi mu yëg nit hmm. gis nga fii euh, mi ngi lay wax ni la bi muy julli ji dafa gis yenn ci ndongo yi ci taalibe yi euh, cedde bi ñu ngi ci biti maanaam nekkuñ sax ci biir tànt bi hmm. li ko waral mooy baas bi yeggul foofu nga xool ni mu bàyyi xel nit ñi te bu ko neexoon moom day fa mu nekk tante bi yegg na fa ma nga toog mu baax fa mu toog bakkane na ma ngay waxtaan waaye moom mi ngay xalaat yenn ci taalibe yi nga xam ne ñi ngi ci biti ba mu ngi wax ne tante bi bu déwee na fi yegg ak it xoolal waxtaan bi ma doon wax méthode bi ni muy tooñee nit ñi di leen wax ne sama bokk ndongo yi euh, loolee ak yëg-yëgam ci nit yow mi nga xam ne daan nga ànd ak moom ci lu baree bari euh, du ma wax ne xam nga léppam waaye lu xam nga lu bari ci moom euh, yëg-yëg bi jërëjëf cheikh bi mhm. loolu li ma ci xam ak li ma ci fekkee lépp duma ko ñimee nettali dinaa ci joxe benn seede rek boo xam ne moo Mawlana Cheikh Sayid boo àndeek moom di dox du bëgg a romb koo xam ne nii te toogaayam jekkut wala tëddaayam jekkut faw dana ñëw seet ko nuyu ko laaj ko lan moo tax nga toog fii am lu ko jox lan moo tax nga tëdd fii bu do moom ci oto mu leer ko ne moto bi des na benn place wala ñaari place ngeen jógee Bañaaka jëm Sarekunda diggante Bañaaka ba Madiana Madiana ba Ghana Town àll bi diggante bi kum fi romb ngay dox dana ne dara fa bi taxawal ñu jël ko yóbbaale ko. am na bis exemple exemple. Hmm. am na bis ñu ngi war a xëy dem Dakar benn waay boo xam ne Bañaaka la dëkk soxnaam tawat am am MRC mhm. xolal MRC ak Bañaaka ni mu sori te waji du talibé sax sang bi billahi wallahi du du talibé mu wara fajaru foor kolok kolog wara war a jógee Bañaaka jëm MRC auto yi jogaguñ moto Bañaaka yi commencé guñ daw wala foscar bi raw nako ko mhm. góor départ ñu wara départ ñew gana Town pigma fofu ben ben place moo ci mhm. moto bi moy suma place bi mu jël mu laaj ko fo jëm mu ne ko man dé MRC laa jëm maksuma suma ci mu ne ko ah moto bi de benn place yu jëlee waaye nañ ci xaj-xaj loo te xam na ko ki ma war a yeb mu ngi ci kanam noona lañ yebee kooku ñu xaj-xaj loo ko ci gannaaw ñëw ba yeg si suma kër ñi taxaw ma génn mu ne moto bi fees na de waaye nañ jéem soo amee paas sax nga fay paas ma jox la nga fay paas fekk ñi tontebul biñ tax ndax ñi man a wàcc ni ñoom jaar dem dem eh, marché loolu bokk na ci yéeg doomu aadama beneen ba ca doo mm-hmm. doon nañ tukki dem ba fu ñuy wax fu njuuñ mm-hmm. ci benn benn féri mhm. bu ñuy jàllalee foofu bu fi booba defaraguñ bridge bi mhm. benn xale yore benn palaat di jaay ay njaayam ñëw ba yegg si fekk ko ci kanamu moto bi fi mu toog nii xale bi ñëw romb ko rombaat ko di ko xool rek nga xam nga góor gi dafa taaru macha allah ku ko xool dëgg doo bëgg xool benn yoon mhm. xale bi bu rombee xool sàcc xool dem rombaat sàcc xool ñëw góor gi ne ko kaay mu ñëw mu ne ko looy jaay mu ne ko man kay papa xam naa li may jaay <laughs> soxla commencé di ñaanal góor gi di ñaan góor gi ne ko man dem na màkk mu ne ko yow sax yaa nekkoon mak hmm? góor gi ne ko sa palaat bi li xuma xol mu xol ko gis ko muy jaay ay tuufa hmm. ay yet ay façon yu mu ne ko li ñaata la mu wax ko li ñaata ñi calculer place ba yëpp mu jënd ko palaat bi mu jënd ko macha allah ci wàcce bopam hmm. ci bëgg doom adamam ak yegg gi mu yegg doom adama bëgg ñepp yemale bu yagul ni rek amna kuy jaay ben basang basang bu ndaw bo xam ne amul ko ñëri ñew ba yex ci perongam bi ci bañaka nuyo ñi fay ko mu ne man de dama doon jaay basang na waa làkk wax a wax a wax bi ne ko ah mu ne ñaari basang yi moo ci ne bi ne ko ah man man tontu sax ne ko waaye yoon di bi baax na jërëjëf ba beneen yoon parce que ñun bu ñuy soxla basang yu mag lañ soxla mu ne ko déet kaay kii di jaay nga di bi ñaata la ma ko firil basang bu njëkk mu firil ma ne ko ne ko déedéet mu ne ko ñaari ñaata la mu ne ko nangam mu compté fay ne ko tegal ko fa tegal basang bi fële am na genn góoru tukulóor gu fa nekk ba ma ñibbi mu ne ko yóbbul basangi yaa ko moom yëg gi mu yëg nit dimbale gi muy dimbale jaamu yàlla yi mm-hmm. loola njàngaleem ci loolu du xaaj du jeex ci ay xar baaxam rek la bokk ba tey tamit mi ngi noonu Mawlana Cheikh Seydi mi ngi noonu xam naa ne euh, waxtaan wi euh, du du waxtaanee ko moom kese genn guddi doyu ci ñaari guddi doyu ci téeméeri guddi sax doyu ci waaye du tey dinañ ci jéem lañu ci la ñu ci man euh, ci kennal yàllaam balaa ma la ciy laaj dama la bëgg a wan benn vidéo nga setaan ko ba noppi ñu dikkaat ci kennal yàllaam ndax mi ngi koy wax foofu nga gis na nga xam ne dara ñoru ko lu dul buur bi dara ñoru ko lu dul yàlla wo ak nu mun a butoo su ko defee ñu seetaanaat vidéo boobu euh, dellu si waat bi mu doon الرحمن فاسال به كبير الرحمن يلا غنا من فاسال لاجل به شي يلا كبير كوكو كام بو يلا وخي ني لاج ما كوما كام سي سيرين ني دون كوي كام واخول دغ اك كو مانا دو القران كو لاجي ني وخي ني موسى جيسلون يلا امول موسى جيسنا يلا بن ايا نكو في انصر الى جبري فين سخر ما كانوا فسفتراني دي دوبو رك واي بلي بام جوغي كو تي تربيه بام دون ديب سي صايبو ba mu demee seen safara buy tàkk mu wax njaboot gi xaar leen ma fi bi Moussa demee ba jub safara bi safara bi def ko ne yaa Moussa fastamih li maa yooxaa déglu li maa wax ak yow Moussa ne tekk da ko déglu mu ne ko Moussa mu ne amoon ne inna nii ana laa man mii may yàlla laa ilaha illa ana kenn xamul ko mooy man Moussa jaamuma fahbud nii fahbud nii la waxsa sax jaamuma kon suñu waxee ne Moussa jisu ko woon dañuy wax rek pour gëlëmal nit ñi man nag suma ma yoon nekku ci dégg naa ñu am na kuy wax ci rajo bi fan yi naan ci kër kilifa yi naan waa boo demee ci nit bu la xamalul yàlla sëriñ bu la xamalul yàlla wucc ko ba billahi moom ma ñu wax ne moo ko wax manta xam le yàlla xam naa ca dara leer na ma naññ xam le yàlla du noonu mos si tuuti ñu wan la ne nit jëm ji Muhammad la du fi jog loolu du xam-xam waaw mos naa gis ku ma dajeet mu ne waaye yàlla moom xam na ko ma ne ah mu ne mu def ni mu ne loxo mu ne lii mooy asakari lii mooy laa ma ne ko yàlla Eh, ndax tampe biñ tampe ci si gi moo laa yóbbu wala lan mu ne ma di dama ne ko yow li nga wone tampe la loolu du yàlla demal fële yàlla du noonu de billahi la si laa ilaa illa wa xam ko pire yombul ma ñu yëngat la xam loola jëm buñ ko tuddee nga bugg a rey sa bopp waaye yàlla piir ñu tudd ko ngay caaxaan amut xamoo ko yàlla bu buñ ko defee sa dënd bi ku waadee nga kontaan waaye feeg sa sëriñ rek nga nangoo déglu daf la nax bu la wonee dëgg dëgg la ñëpp da wax dëgg yàlla kenn la maa ngi ko wax de ma ma ndaw ceen dëkk ba daaru salaam mu ne walaa yaxiqul xaq ka xaqihi mu ne benn dëgg du nekkee dëgg ni dëggam gi benn dëgg du nekkee dëgg ni dëggam gi dëgg googa soo ca xàggee yéen ñoom ngeen xem mu ne moom yàlla genn dëgg du nekkee dëggam ni dëggam gi ba tey di dikkaat ci kennal yàllaam gi maa ngi am bor su ma ko waxul day nekk bàkkaar mooy lan man ak moom comme yëg-yëg doomi aadama bi nga doon waxtaan balaa ñu ñëw fii. Mm, mm. Eh, man ak moom ñoo ko ñoo ko def defandoor. moo tax ne bëgg naa ko waxtaanee. aywa aywa. Eh, talaata. Mm-hmm. talaata bu romb nii. Mm-hmm. dafa oo c'est Moustapha Kébé mu ne ko wool woole ma Abou Cham. ndeysaan. c'est woo ma jamono boobu man maa ngi nelaw. Mm. munul maa am. mu oo Oustaz Sira mu ne ko góor gi de mu ne naa Abou Cham ñëw. talaata bu doon ma ni talaata bu mu doon dem dakaar bi ma demee man lu bari yére yi ñoo de ànda hmm. keroog nuñ ma eewee maa ngi sol yére bu yére yére bu yeloo si hmm. biir dafa yeloo hmm. ma teg foofu na manta bu ngi feebar sonn na bi ma ñëwee def ma gis rek mu ne ma ah baalal ma de yëg-yëg doomi aadama parce que nit bu nii na ma doon gisee mu ne ma eh, baalal baalal ma de wallahi ladim mhm. mhm. mu ne ma baalal ma de xam naa ne den la den comme yëg-yëg bu yëg xam nga sa taalibe ñu bari dañoo jël taalibe def ko jaam mhm. waa yow même li nga sonno yaa ngi yëg-yëg ne sa taalibe bi nu mu ñëwee tey du nii la doon ñëwee kon am na lu tax am na lu tax mu ne ma dalal ndeysaan ne ma dalal waroon ngaa teg sa time ba nga pare nga ñëw ndeysaan kon kooku moo tax ñu toppa ko tey toppa ko ëllëg toppa ko gannaaw ëllëg Eh, bennol yàlla bu ma wax noonu mm-hmm. kon mm-hmm. góor gi dafa bennool yàlla mm-hmm. bennoo yàlla googu moo tax ne képp kuy waxtaan te su la wonee fi fu ñu fu ñoo fu ñoo benno yàlla góor gi bu la ubulee bunta fu ñoo benno lalee yàlla fu ñoo defee yàlla benn képp ku fa dugga rekk boo génnee képp ku waxtaan rek dang koy nangul parce que ne yàlla fépp fu ñu waxtaanee yàlla rek hmm. yàlla bàyyi kenn moomul ko maami kenn moomul ko benn néeg moomul ko benn kër moomul ko kon na képp ku waxtaanee yàlla rek tànka sëriñ seen moo la jàngal da ngay am xol pour déglu ko da ngay am yëg-yëg pour déglu ko hmm. waaye képp ki nga xamante ne benn ker rek ngay mun a déglu hmm. benn koñ rek ngay mun a déglu te yàlla mooy dajale lépp fa aynama tuwallu fa samma wajhullaa lépp loo jàkkaarle yàlla mu ngi foofa kon nag képp kuy waxtaane yàlla war nga koo déglul sama xama lu mu rëy rëy yenent bi sallallahu gën si mbindeef mhm. gën si mbindeef déglul ma ne mhm. gën si mbindeef mhm. gën a mokkal alquran ñëpp def doon ekati benn si saxaba yi mu ne ko jàngal ma alquran ma déglu ko ah kon kooku gën si mbindeef dem na ba ekkati benn saaba mu ne ko jàngal alquran ma déglu ko. ma mu ne ko yow naka lay jàngee alquran nga déglu ko yow lañ. yow lañ wàccee alquran si sa ji. Mm. mu ne ko waaye man tam bugg naa ko dégloo si jaami yàlla macha allah mooy góor gi. mooy góor gi moo tax taalibeem. Mm. taalibeem mm. képp kuy waxtaan. wallahi képp kuy waxtaan rek da ngay am cawarte déglu ko. déglu ko. ndaxte moom su waxee du moom ngay xool li moo wax. li muy wax mhm. macha allah. taalibe góor bi dafa dafa jël nopp yi raxas ko. Mhm. dugal foofu beneen aab. Mhm. ab boobu nag mu daldi ko contact ak ak bi maanaa xol gi lépp lu nit ki di di waxtaan rek ab bi daf koy ab set boobu boobu ab daf koy ab daf koy mun a jël waaye képp ki nga xamante ne jàng nga amuloo boobu aab hmm. wallahi adim soo ko buggee déglu saa doo mun parce ne aab boobu dañ ko war a download si sa jëmm ji hmm. pour mu mën a dugg pour mu pour lu ñëw rek nga nga dal di ko nga mën a capter gisuloo sa hmm. virus euh, comme mobile bi su feesee bàyyi fos nga dileet yeneen aab yi pour nga mën a dugalaat nga mën a dugalee waaye nag góor gi dafa am jig yu moo def si yow wallahi adim mun ngaa déglu junnee junnee waxtaan ah du fees du fees. wallaay iPhone la. <laughs> wallaay wallaay mi ngoog eh, dama la yow suñuy dikk mooy sëñ bi ak ak njaboot. ku njabootoon la du njaboot rek ci njabootu boppam. waaye ci taalibe ak ñoom ndax moom ñëpp daf leen jàppoon ni njabootam. sëñ bi nan la daan jëflanteeg ak njabootam yi ci di leen jàngal ci di leen yar eh, ci di leen teel a xamal seen bopp ci ne ëllëg ñoom ñooy taxaw ba tey jii ki nga xam ne mooy xalifa eh, Cheikh Bassirou Kébé. Euh, nu ngi koy nuyu fu mu toog di sukkaat ci ci ñaari wóom yi euh, di ko rek jox loxo mm, nan la sëñ bi daan jëflanteeg ñoom yow du ñàkk xam nga ci lu bari tey nag xam nga sëñ bi tey lépp lu ñu waxtaanee fii ci moom ñuy seetaan ñun ñi euh, dañ ciy jàngee. jërëjëf Garmi Maulana Cheikh Seydou Omar kebe dafa njabootu ñëpp mm. njabootu deretam ak njabootu ruux gi yëpp. daf leen boole ñu nekk benn njaboot. cheikh imam Mouhamadul Kabir Bari saaxibul fuyoodaati rabbaaniya mi nga xam ne moo doon sëriñam ca wéli nga rawaaloo daf ko daan xool ba mu yàgg mu ko Seydou Omar mu naa ko yow da ngaa bëgg ñëpp baax te ñëpp duñ mën a kon loolu mooy tegtale ne njabootam amul xaajale waaye amaa nag kii nga xam ne tey mooy di xalifa Maulana Cheikh Bachir Saïd Omar Kébé. macha allah la yàlla guddal fanam te wéral ay cëram te woyofal yéen bi ci kawam ñu koy ziyaara bu baax di feddi liwaat sunu wëllëre ak suñu jaayanteeg moom ci ea bi nga xam ne ñëpp dégg ko di digal taalibe yëpp ñu dem feddali seeni jaayante kéemtaan bu rëy la Mawlaana Cheikh Seydou Mar Kébé def ndax dafa yemale woon ñëpp njabootu Cheikh moom Cheikh Bachir ak rakkam ak magam ak keneen ka nga xam ne sax ab maa njaago la ngeen baal ma ci kàddu gi wala muy leneen ñëw dugg si ci kër gi mook Cheikh Bachir lay male waaye yàlla dafa am lu dogal loo xam ne dogal na ko bu yàgg te dafa am nu ko dogalee ci feebaru Mawlana Cheikh Seydou Omar Kébé mhm. bu ñu ko seetee ñetti waxtu bu tegal ñaar fukki minute ak ñaar ci la Mawlana Cheikh Seydou Omar Kébé wuy ji boromam hmm? tombeek ngelaw lu xam ne ngelaw lu bari mm-hmm. bare bari la sedd guy mm-hmm. guy mm-hmm. guy ànd ak ndox Mawlana Cheikh Imam Mouhamadul Kabir bari ak wuy ji boromam tombeek loolu ñuy wax addina bi Maodo Cheikh Bachir mu ngi koy nettali barki de bu ñu ne moo doon atum 2000 addina bi dafay tukki compité yi dañuy taxaw nangam nangam nangam ndekete ruuxu Mawlana Cheikh Imam Imam Mouhamadul Kabir bari moo doon génn di di toxu moo tax ñu waxoon loolu Mawlana Cheikh Sir Mar Kebe ruuxam bi muy dem tombeeg ñetti waxtu bu tegal ñaar fukki minute ak ñaar ñaar fukki ak ñaar 22 mooy santam hmm? mooy sant Mawlana Cheikh Sir Mar Kebe léegi kon nga jël ñetti waxtu boobu ñetti boobu nga delloo ko ci ñetti yi nga xam ne dundam bi lépp ci lii la doon jàngale xaqul yaqin aynul yaqin ilmul yaqin bi mu ko jàngalee kan ma ko doon jàngale kebe mi kebe ko doon jàngale mu jàngal ñu ruux dey boo koy seet bu ñu la mën a bëgg a jàngal ruux pire hmm. ndox mu nga fa hmm. ngelaw mu nga fa ba tax bi ruuxam di génn ngelaw lu sedd lu ànd ak ndox fii ba Ndakaaru lépp ñi di ko yëg muy kéemtaan turam ñëw nekk lan Saïd da xam nga wax naa santam hmm. turam ñëw lan di Saïd ndeysaan léeg-léegaan mu waxtaan ba yàgg comme li ngay wax ci waxtaanam pédagogie bi muy waxtaane pour reeloo nit ñu bégloo leen ndax joxaale leen xam-xam bu ànd ak kontaan Euh, kebe moo dàq ci sant yi mhm. nga ne ko lu tax mu ne kebe bala ngaa dugg àjjana kenn du dugg àjjana te sant loo kebe ah waaw loolu doy na waar di mhm. mu ne kebe soo bindee kebe dafa tolloog 22 mhm. soo bindee xabibu dafa tolloog tolloog 22 ku yàlla sopput yonent bu sopput la nooy dafa dugg àjjana ku yàlla sopp wala yonent bi sopp leen est ce que doo dugg aljana ah, kon ku yàlla sopp kon kebe nga sant ci Habib kebe nga duggee aljana kon mu ne nit di dugg aljana faaw nga sant kebe yéen si si si si gaaw leen ngeen cee ngeen ceen seen sant yi su ko defee nag eh, kon indi mm-hmm. moo nekk lan kon ci turam la nit di jaare jaare dugg aljana mm-hmm. mooy texe ku texe mooy dugg aljana a Saïd mooy ku texe mm-hmm. kon moom Saïd moomu génne ci 22 boobu dem toxu di uy ci boromam kan la ñu joxoñ mooy Maulana Cheikh Mouhamadul Bachir al Bachir. Mm. mooy kuy bégle. mooy kuy bégle kon mbég la fi Maulana Cheikh Seyd bàyyi mm. parce que bàyyi na fi xam-xam bu leer. Mm. bàyyi na fi xam-xam bu set. joxoñ ñi Bachir. kële ci lañ war a bégee ji kon mbokki taalibe yi mbokki julit yi mbokki Gambia. Maulana Cheikh Seyd foog ngeen ne rëcc na waaye rëccu de fi Bachir a ngi fi. mu ngi Bachir a ngi fi. mooy moo ñu a bégal. bi ne mooy géej ku sóobu fa moom. xam ne yaa ngi ci biir géej mhm. boo génnee xam sa borom mhm. euh, maa ngi doon laaj sëñ Moustapha diggante mag njaboot gi waaye euh, li ma lay laaj rek mooy laata ma lay wanaat beneen video nga seetaan ci wàllu yemale kilifa diine yi nga xam ne waxtaanee nañ ko moom am na fenn fu mu ci waxtaanee loo xam ne loolu da koy firndeel ndax dañuy wax ne euh, ay wax bu tungi may seedee day neex a gëm. Mhm. mooy loolu su ko defee dinañ ko wane ci kanam waaye laata ñuy ñëw ci loolu yow dama la bëgg laaj ci ne xam nga yow ku sëñ bi ku jëflante nga moom ci jaahir ci baatin euh, tey jii fi ni jamono mel duñ waxtaanee ba noppi te waxtaanee wuñ loolu dund gi cher jafe-jafe yi bari euh, ray gi bari lu baree bari bari ci sëñ bi ñu mu leer ñu ne gàmm gii nii weesu su toogoon moom di waxtaan dina am bari yu mu ci doon wax tey lan nga doon foog ne dina ko doon wax ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci wàllu ray bari dundugu sergi, gi ak yenen jefe jefe ci feebar yek yu ci bari su <coughs> su ko yalla mayon mu tok si gamu gi dina ci don waxtaan waaye amna ñuko ñu ko waxtaan mm-hmm. waaye gis nga dundugu ser gi ni mm-hmm. tanka serim bi yalla moko sol diko doxal diko diko diko diko di diko doxlo mm-hmm. su fa togon dina wax lan moy sabab lol waye be tay tam moñu solal kon dañu kon dañoo mm. wax lu mu doon wax mm. dundugu seer gi mm. amul li ko waral lu dul ñun jaam yàlla yi mm-hmm. bu bari bari bi ni amul lu ko waral lu dul jaam yàlla nguur si mënu si dara mm-hmm. si hadis bi yenent bi sala sallam mu ne mujjanteen jamono nit ñi dañoo bugg a mbir ñu fàttee juróomi mbir mm-hmm. mu yan annaasu yuhibbuuna xamsan wa yansawna xamsan wa yansawna xamsan yuhibbuuna almaala wa yansawna alxisaaba yuhibuuna aldunya wa yansawna alaxira yuhibuuna alxaaliqa wa yansawna almaxluqa yuhibuuna alqusura al aaliya wa yansawna alqubura ida kaana al amru kadalika ibtalaahum allahu bi thalathati umuur comme xadis bi dafa xaw a gudd dafa a gudd ñu tënk ko rek si olof yenent bi nee ne mujjanteen jamono nit ñi dañoo bugg a juróomi mbir nit ñi dañoo bugg a juróomi mbir ñu fàttee juróomi mbir mujjan mujjanteen jamono nit ñi dañoo bugg a yu kawe étage kawe ñu fàtte bàmmeel tey kan moo bëggut kër bu kawet ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg mm-hmm. ñu fàtte bammeel mm-hmm. benn nit ñi ñëpp dañoo bëgg aleel mm-hmm. tey ko bëggut aleel ñëpp mu ne dañoo bëgg aleel ba fàtte xisaab aleel boo mën a am yàlla def lay laaj ñi ko amee fi nga ko amee noo ko defee yëpp tamit mu ne nit ñi dañoo bëgg nit ñu fàtte yàlla tey da gis nit ki bugg nit bugg a musicien wala bugg a foot footballer mhm. ba benn mu ne nit ñi itam dañoo dem bugg a fo mhm. bugg a bakkaar mhm. tuub yàlla fàttee macha allah tey bakkaar façon foo bu nekk dafa am tey foo foo nañ façon foo bu nekk ba foo yuñ xamoon demba liñ fiy génne tey ñu dee foo jigéen xaj ak jigéen xaj ak nit amu tey mm. ba ñu dem tam nit góor ak góor di fo mm. Mm. jigéen ak jigéen di fo nit ñi dañ fo ba xamatul lu noo fo moo tax ñuy def loolu yàlla yenn ti mu ne su jamono be demee mel noonu yàlla def leen naa nattoo ñetti mbir mooy yan dee bu bette nga jekki-jekki rek lekk ba suur rek ñu ne diw diw de dee na dafa jekki-jekki rek dee est-ce amul tey mm-hmm. amul tey am na am na mm-hmm. kon mu ne beneen mbir mi yàlla def le naa nattoo hmm. ak buur yu born buur yu bon yu soxor hmm. faale wuñ kenn du man maa ko wax de hmm. yeneen bi moo ko mu ne yàlla nattoo leen nguur buur buur yu bon fonkun kenn faale wuñ kenn seen bopp rek la ñoo nekkal fii loolu du man maa ko wax de yeneen bi moo ko wax sallallahu alayhi ce que amul tey xanaa nga ñeme wax wala nga ñàkk a koo wax waaye am na tey beneen bi mu ne yàlla nattoo leen dund gu cher loolu hmm. dund gu gi du wàllu du wàllu nguur mi de hmm. soo waxee ne dund gu cher na du ñoom hmm. ku xamul ne dégg ne yaa ngi sotal te wax naa léegi ne nguur yu cher nguur bi maanaam nguur nguur yu bon yu soxor waaw kon nag dundu gu cher gi. Hmm. programme yàlla la yàlla moo ñu programmé nii. Hmm. waaye hmm. Baye Seyd am na lu ñu jàngal bu lii jotee ak nu ñuy dundee. xam nga lii yëpp. bu ñu amoon kilifa. bu defar suñ xol xol yi ba duñ bugg a aduna. sol lu rafet taxul nga bugg a aduna. soo amoon góor góor góor bu bu mel nii Serigne Sène hmm. dafay raxas feebar yooyu si sa xol ba doo bugg a àdduna doo bugga a nit doo bugg a amul looy bugg lu dul yàlla gis nga bu ñu buggoon yàlla hmm. dund gi du cher même su chéré sa hmm. euh, mbay dara cherut dara cherut xam nga lu lu cher mooy ku amul rek wallaay dëgg la bu ñoo jaay comme table bi ñu ngi koy jaay Mm. junney dalasi mm. boo amul junne seer na wala seerut taabul bi mm. su fekkee ne junney dalasi lañ koy jaay yow amuloo junne seer na si yow wala seerut seer na kay ah, ah. bu fekkente ne yaa ngi teg ay million si sa poos ñu ne la table bi ñu ngi koy jaayee ten thousand seer na seer na si yow wala seerut seerut kon nag aha mi ngoog mi su ko defee bokk yéen a ngi eh, seetaan ay Africa TV ñu amal leen jetaay bu am solo di ci waxtaanee góor gu tedd gi nga xam ne rek moo ñu dëddu ni ki ni ñu leen koy waxee rek jant ba doon fenk foofee ci madinatul anwar moo daal di rek so euh, naam dem na ci zahir waaye mi ngi fii ci baati ndax woyam dootul fay moom la ñuy waxtaanee waxtaanee ko nag jafe na ndax wax naa leen ko sànq waaye nag yàlla may nañu moom dafa sol ñu bari dafa defer ñu bari bari ñoo xam ne mënees nañ koo waxtaanee te ñi ngi fi kenn ki di rek euh, nga xam ne rek moo di Serigne Moustapha Kébé ki ci des rek di yaa Imam Abdoulaye Thiam dama leen di wan benn vidéo ci rek wan leen ni mu yemale woon kilifa diine yi ni mu woyefee woon te wala boole woon ñëpp ñu yem su ko defee ñu seetaan ko te dellusiwaat. waaw jërëjëf jërëjëf kooku moo waxoon lam wax benn sëriñ waxaatagut ko su ma léegi bii badar lañ ma ko jamee xoon mu jigi mu wax Senghor a ngay wër sëriñ si mooy leen Senghor du fi ñëw yéeféer la woon ca badar ba bugg koo rey mu rëcc ma kam na ma te du ma seet si te Senghor seetiwu ko ko portale ɗo han bo tege radio ɗujel yalla kunen namla sedde suko ɗefe anño gorgorlu mamo wandaw ce portale ba mam seigne touba ce sadiada bam lal mam aliou dem ah, a ce sako bam seppu forko salatu fati bam jeex mamadaji mali nga toxal ba teyi mu toog tëla mm-hmm. mm-hmm. noonu la li ñoo coow yóbbu naan dañ ko yóbbu woon amu amul dafa tëdd tubaab yi suñ ko yóbboo rek mu delloosi mu delloosi ko def nañ ko ba jël wirde ci moom pour bugg a xam ci lu ne te xam na ne gëmuñ ko ñu ñëw ne ko dégg nañ da ngaa firi alquran mu yëkkati ne ah wa saa moo fasir kii mooy firi li mu wax laay nettali fu ne tubaab yi jaay nañ ko faa mënu sotti noonu la ku ne cir dafa am koo xam ne cëram dafa seer cëram na moo nam caa jotee day métti ma ne ku fondement wul lu ñoo jaayee mobile bi téeméer Moustapha Kébé avance juróom-ñetti fukk man ma avance ñaar fukk ma dese juróom-ñetti fukk su ñoo mottali kuy njëkk a pare affaire bàngoog am taalibi ni ñoom di defere ni ñoom am xam-xam ni ñoom siw ni ñoom yegg fa yàlla ni ñoom nañu yeggee fa yàlla ni ñoom ni moom mu bàyyi fa jëfam moom di nettali ñoom xoolal nu mu nu mu jëmale woon kilifa diine xam nga wax nañ ko waaye lii mooy seede si. est que est-ce que moom bokkutoon si ñooña jërëjëf ndax da te it est-ce que moom ca la bokkoon waaye dafa nëbboon boppam. est-ce que moom. Mm-hmm. si wallu zahir mi mm-hmm. tudd fi Cheikh sa Cheikh Omar Saïd Kébé. Mm-hmm. la tudd fi. waaye Demba lan la est-ce que. wallaay wallaay wax nga dëgg xam na fi Senghor mu ne toujours day nettali ko mooy Cheikh Omar Ndaw Alaji Omar Ndaw. mu ne Senghor mu ngi am léegi mu ngi am. moom Alaaji Umar mu ngi am mu Umar Ndaw mu ngi am liggéey mm-hmm. ah. mu ne Senghor moo ko jamoon loolu mm-hmm. loolu naka la ko xel mën nango Senghor demba demba fii mm-hmm. ci Badar si Badar si Badar kon nag Alaaji Umar Ndaw bokkoon na si Badar waaye jamono mom ala Alaaji Umar Ndaw est-ce que Umar Ndaw la fa la fa tuddoon tuddoon Alaaji Umar Ndaw Senghor tam tuddoon na fa amee Senghor mun na am Senghor moo Abu Jahali Mm-hmm. boo gisee Senghor bàyyi saxaaba yëpp mm-hmm. jam ko mm-hmm. jam Alaaji na Ndaw mii mu dëkk fii si Sénégal moo tax ne mu ne Alaaji Omar Ndaw mu ne Senghor dina wor këri diine yëpp waaye du fi àgg noonu la ndax moo ma jamoon liggéey bi nekk fii moo ma ko defoon ci xare Badar noonu boobu ba tey dina am gis nga góor gi nu ñu sonnalee seen eh, eh, Serigne Serigne Touba dugal ko fu nekk. Mm-hmm. sëriñ bi coono bu mu am sëriñ Tuuba amut ko. Mm-hmm. Mm-hmm. xaatim bu nekk dugal nañ ko. <laughs> Serigne Touba dañ ko dugal si si géej. si gaal di ko yóbbu fale góor gi xaatim bu nekka dugal nañ ko foofu façon pexe bu nekk pexe nañ ko pour pour tëj ko pour rey ko xam nañ si dara. waaye loolu <laughs> loolu loolu yëpp amut. yàlla mun ko aaral boppam ndaxte yàlla moo ko yónni. yeneen c'est Moustapha sànq wax na fi mu ne su wa suñu waxee ne Serigne Sène yenent yàlla la man mhm. na am ñu bëri seen xel yi naaw yenent bi moo ko mu ne mhm. aha al ulamaau warasatul anbiya hadis bi mu si Bukhari boo déggee Bukhari mhm. lépp loo dégg si Bukhari rek lu wér la amul werante sahih moo tax ñu ñu tuddee ko sahihul Bukhari sahihul muslim képp ku nangu wut ne Serigne seed bi ma anaa yenenti yàlla la kon jànguloo xadis googu wala da nga ko déggut yeneen ti moo al ulamaau warasatul anbiyaay borom xam-xam yi hmm. ñoo ñooy donnu est ki danga koy da koy donnu ba pare ñàkk koo donnu si lépp nit ki kay buy donnu bayam hmm. da ngay donnu sa yére bàyyi hmm. donnu sa sa téere bàyyi donnu sa lépp bàyyi mu amoon yëpp nga koy donn te yeneen bi mu man duñ ma donnu aleel Hmm. aw ma alal bu ñu may doon xam-xam lañ may doon kon hmm. nag góor gi xam boobu la doon. ci yonent bi moo tax mu mu mu sol ko si xoli jaam yàlla yi. dara macha allah eh, lan ngay lan gay dellu ci yooyu balaa ñuy dikkaat ci beneen ndax am na eh, ñaari eh, waxtaan ci moom yoo xam ne bëgg nañ ko digtal laata ñuy jeexal ndax it nag waxtu yi mu ngi dem naam sax <laughs> mënuñoo jeexal waxtaanee sang bi mm, bokk na ci. yemale kilifa diine gi nga xam ne ñoo ngi doon waxtaan vidéo bi ñu seetaan nii rek doy na ci seede mi ngi tudd maam borom Touba Sidi Hadji Malick si ak ñeneen ku ci nekk mu ne rek dafa am lu ñu la séddaloon moom mu nangul leen lañ leen séddaloon te it nag yàlla moom si boppam yàkkal na ko lu toll ni la mu yàkkal gars yi te teewul mu nangul leen. jërëjëf gar Mbaye Garmi loolu la ma ci yokk ci yemale e, góoru yàlla yi. Mm. E, dafa mel ni dafa daf ko defoon ngir mu nekk kiiraay ci moom góor gi dafa daan jël mboolem góoru yàlla yi di leen waxtaanee. Mm. ni ko waxee mu bàyyi boppam. parce que wax dëgg yàlla nag alxuraan moo ñu aaye pour ñu waxtaane suñu bopp fala tuzakku anfusakum bu leen tagg seen bopp bu leen waxtaane seen i mbir kon waxtaane imaam Abu Caam bu fekkee ne yow dégg nga ma kon xam nga ne li may waxtaan ci imaam Abu moo nekk ci man mhm. kon loolu moo taxoon mu di ko def ngir lan gën a suufeel boppam waay gën a nëbb boppam jaami yàlla yi mhm. kon bunt bi nga xam ne imaam Abu Caam duggoon na ci léegi ne la mbaadu kon moom ca ñooña la bokkoon démb mhm. te booba tuddutoon Saïd kon loolu ba tey tamit jàngale la boo xam ne du la wax man maa doon kan démb waaye mën na laa wax moom boppam te du la waxee boppam ci Saïd mii loolu yëpp. waaye faaw nga am dégg-dégg. ngir mën koo xam faaw nga am dégg-dégg. Hmm. boo xam ne nopp bii du moo koy dégg parce que nopp bii déggul. Hmm. nopp bay dégg. Hmm. boobu mooy noppam yàlla. moo nekk ci yow nit nag nopp bii la moom buñ ko xëccee mu ne yaa ngi may gaañ ci ma nopp bi xanaa boobu de nopp gar mi lay doon <laughs> xam na de ah, waaye bët bi bëtu nit la mm-hmm. waaye bëtu yàlla bi gisut moom la la imaam wax sànq bi ñu déparé programme bi mm-hmm. mu ne la sa néeg tey yaa ngi toog fii ci Eye Africa mm-hmm. TV waaye yaa mën ngaa toog di gis sa néeg di gis salal ba waaye du ñaari ci beut yi ni moy gis salal ba mm. fa mu nek mm. du moy gis sa neeg ba fa mu nek ak la ci biir neeg ba mm. kon beut bi nga xamne moy beutu yalla ci biir garmi moy meuna tok fi ay africa ngay def programme ci Maulana Cheikh Seydou Omar Kébé beut bobu dal di nit sa biir neeg gis la fa nek ci biir neeg nga fatale nga togat kon yoyu mo taxone Maulana Cheikh Seydou di neub bopam di genné kenen waye ndekete fekk yow mi nga xamne bay set genné na sa beut bobu li alcorane di wax ne fa kashafna anka rita aka li la sa beut bi ba tax ta gis bay set murinako kon bu waxe di waxtu yeneen alaaji Malick maam Serigne Touba mm. maam Ahmad maam euh, alaaji Omar Ndaw mm. nga noppi rek jàpp ne góor yàlla yi lay tudd mm. waaye génnul jëmmam si génnul jëmmam mi ngi euh, moom sëñ bi mu ngi soññi na taalibe ci fonk wayjur ci dimbali wayjur mm-hmm. ci liggéey ngir wayjur ci lépp lu ñuy wuti nañ ci jiital wayjur yi moom digle na ko ci jataay yu bari digle na ko digle na ko diglewaat ko ñu seetaan lii te dellusiwaat waaw jërëjëf jërëjëf kooku moo waxoon lam wax benn sëriñ waxaatagut ko su ma léegi bii dar lañ ma ko jamee xoon mu gi mu wax Senghor a ngay wër sëriñ si mooy leen Senghor du fi ñëw yéeféer la woon ca dar ba bugg koo ree mu rëcc ma xam na ma te du ma seet si te Senghor si ku am soxla su ko ci sa ron ndey ak sa bàyyi nga wuut ko fa booy génn dajeeg moom ci mbedd mi doo sori waaye fontoon ndey ak bàyyi xëy wuti da ngaa wër ba jant bi soo nga sonn xiif mar tilim te doo xam dara dara doo yonent bi nee na jamono bu ndey ak bàyyi mere yàlla tëj ajana eh, tijji safara caabi ju yàlla eh, eh, yore nag balaa nga caa jot dana métti de xamoon fu mu nekk ak caabim daan naa ko wax ci bu ma laa jàngal wàllu yàlla tarbiya ma ne yaa ngi ñëw ci buntu kër gi ki nga soxlaan ci biir kër gi mooy borom kër gi waaye ci buntu kër gi fekk na karnaat baa ngi ci tege tëjee wuñ ko caabi karnaat lañ ko tëjee muñ ci kawam yaa ngi koo gis léegi nga soxla borom kër gi naka ngaa def ba jot ko naka ngaa def ba jot ko te moom moo amee caabim toog biir néegam te yow yaa ngi ci bu néeg bi te karnaat baa ngi ci kaw naka ngeen naa def ah koom kom loolu tax góor ga ci tuwaaw mu ne yi hiya baabal xayri la iyaada bi lam yi fi li saaka sadaf naa naa baabi ko wécc hati fanta kërimul fël kërimu manil tijaa illaa bi yaman halaa kulli nimati alaaji Malik mu ne ba ma wuree ba téye xam ne dara du sotti li saako looloo tax saraf naa ma soppeeku tourné jàkkaarleeg sa bunt bi da fëgg rek nag mu wóor ma ne waqar ya baabal xayri fëgg buntu keneen yaara bi yow suma borom lam yëfit du ma jëriñ dara ma ba ko ndax lu tax ma ba ko fa anta karimun yow ku tabe nga yaman da ngay xiwal ki nga xam ne mu ngi yàkkamtee ñëw ci ko yaa ngi ko yàkkamtee xiwal ba toog ci bunt ne bi da koo xaar mu ne fa anta karimun fa la karimun ma leen tijaay laa ba bi yaman ala kulli ni'mati su ko defee nag boo dégloo lool ndegam maam Alaaji Maalik moo doon koŋ-koŋu buntu yàlla ba Muhammad tijjil ko dem leen koŋ ku ci foog ne sa sëriñ la du moom de wallahi ku ci foog ne sa la du moom yàlla yàlla man Cheikh Kébé lu leer laay wax nit ñi maa ngi teg yéen de waxak ak yéen li ma jàng ci alxuraan ba yàlla dimbale ma daje Cheikh Abdou Kabir mu imbil ma lañ ca imboon may wax ak yéen la ma leen a wax toujours mooy santuma kenn nga ñàkk a jaamu yàlla santuma kenn nga fontoo sa kilifa santuma kenn nga tooñ kenn wala nga bañ kenn koo gis mu baax xamal ne ki baaxal sa waajee ko baaxal kilifa guñ la tudd nangul ko nga nangu mbaaxam waaye boo ne da ngaa weddi koo goo xam ne moo man sa sëriñ foo jéem a xalaku rek xalaku rek wax naa xale yi su ngeen dajee ku xas bu kenn tontu suñ ma xasee luñ ma wax wax yéen bu leen ko wax sëriñam sëriñam jotewu leen la te du seen morom leen ci moom soo mën a xulóog moom moom waaye lu ma wax bu mu tax nga wax sëriñam moom moo yaruwul moo tax muy wax sëriñ yi jàmm dara waaye ku yaru du ko wax xam na fii bundung xam na fii bundung am ku toog ñoo bokk nekk ci koñ bi xamul ci la semaine mu ngi wax ne sëriñ Kébé mi ñoo wax noonu de dañu wax waaye laay laay laay sax mënu koo firi déggu la ngeen ne xay kooku waxu dara dafa toog rek deree ba benn bés nag mu bugg ci sori góor gi ne ko ndax xam nga sëriñ Kébé mu ne ko dee ndax mas nga koo gis mu ne ko dee ndax toog nga taalibe bi mu ne dee mu ne ko da nga xamee kasetam mu ne ko dee mu ne ko yaa maandu hadi kooku it xam nga lu mu fayoo mu ne ko waaye noonu nga mën a mel sa sëriñ mënul bu baax ñu ne ko tax ngay wàlli ñi ko wër ñoom ne man sëriñ Kébé mooy suma sëriñ moo ma naan li nga wax ne te maa la ci man fuuf xam-xam bi nga foo ne xam nga ko maa la ci man fuuf waaye comme man dañ ma yar ni muñ ma yaree noonu laa jëfandikoo moo tax yaa ngi wax ba yàgg ba tey moom too la xool rek waaye tey nag danaa la wax ne waxoo dëgg te nga moytu de bu jamono bu sa sëriñ de tàkk nga ne moo am matta ba tàng keneen sëriñam di tàkk nga fooy ndax tàngoor nekku fa da ngaa xalak sa bopp gis nga benn laaru laa ilaaha illa mooy tàngaloo nit ñi ci la ñu dubaa jaami yàlla te lim ci yor leer ma ko nga moytu sa bopp mi ngoog euh, vidéo bu am solo la wax na ci euh, ni nga war a fàggoo lépp looy fàggu ci àdduna jiitoo ko ci say wóomi way jur mm-hmm. doo ko dem wutali feneen mm-hmm. nettali na ko nit ñi bu baax a baax ñëwaat waxaat ci euh, fonkal sëriñu jàmbur mm-hmm. donte ka sax fonkul sab sëriñ mm-hmm. ndax ka baaxal sa sëriñ moo ko baaxal waaw la Maolana Cheikh Seydou Omar Kébé wax nga ko sànq mbay ci sa weyu tànk mm-hmm. moo do moo na nit koo xam ne lii muy digle moom moo ciy njëkk ndax jamono yii tey way juróomu jigéen ma nga Madinatul Anwar maam Atta Diallo ma nga fa Maolana Cheikh Seyd daawul xëy mukk nuy jiwlu yaayam dana waaxu sol dem ba néeg yaayam mu nuyu ko waxtaan ak moom kaf ak moom ree ak moom daal di wëññi ko at ñëw léeg mu xaw xëy sax mbooloo mi xëy tànc ko nit ñi xëy rek ñëwandoo fajaru ci këram ndeysaan te moom bëggut a gàntu kenn mu toog ba yàgg mu ne may leen ma nuy nuy jóguma suma yaay mu waaxu dem nuyu yaayam. te loolu rek jàngale la. loolu jàngale boo xam ne nii. Mm-hmm. bu ko neexoon ñàkk ko def ndax fi ne yaayam toll na ci magi foo xam ne. Mm-hmm. moom it toll na foo xam ne fi tey. Mm-hmm. ci garab ma xamam bu ko neexoon ñàkk a ji yaayam ba tey te du ñàkk a nuyu ji nuyu na ko. bala buy tukki moto bi gaare buntu néegam. bu ñëwee day wër moto bi romb ko dem néegu yaayam tàggu yaayam ba noppi door a ñëw dugg ci moto bi dem. su tukkee génn réew mi ba ñëw buy gam bu dee senegal dem buy ñëwee buy yegg see oto bi buy gaare néegi yaayam lay njëkk a dugg nuyu ko door balaa mooy dugg néegam kon lii lépp mhm. mbay ci sa wiw tànk la mhm. Mawlana Cheikh Seye jàngal na ñi ko topp nañ war a toppee seeni waajur ku gis lii nag Mawlana Cheikh Seye di ko def mu ne ku ci fonk sa yaay man fonk naa suma yaay gis ngeen ko ni ma koy dundee moom mhm. ku ci fonkul sa yaay gis ngeen ni ma fonkee suma yaay da nga maire bi dafa daan toog yërëm góor gi ne sàcc seet ñi ànd ak góor gi mu ne am lii su ngeen demee nga jëndal ma nangam bu ko sëriñ bi yégée ne la bu ko jënd de génn nañ mu am lu ma yóbbanti bi ko Mawlaana Cheikh Seydi yégée daf ne lu ma lu sa suma yaay lu mu la jox ma ne ko nangam la ma jox ne ma jëndal ko nangam mu ne ma denc ko bañ yeggee mu yëkkati loola jox ma ma jëndi ñëw ñu indiwaale ko jox ko ko ma konté waat xaalisam jox ko mu lii nag ma ne ko ah bi moo ma wax ne bu ma ko jënd mu ne wax naa leen dama ko yërëm suma doom ji dama ko yërëm lu ma soxla mu jënd lu ma soxla woon mu jënd indi kon su ma dajalee suma xaalis addiye yi ma nit ñi nit nit yi di indil. Mm-hmm. léegi mat na nangam bàyyi leen man tam ma jënd ko ma ne ko ah suma yaay mu naa ah, ma ne ko góor gi nag. Mm-hmm. sañut maa sant dara ma bañ loo ma sant ma def ko ne waaye bu góor gi santaanee moom mooy suñu kilifa. Mm-hmm. su ko defee ñi nangu rek ne mooy suñu kilifa yow tamit woy jur nga waaye su boobaa dañuy am yërmande ci mage gi nga magee jël na ñun moom doom moo war a defal wayjur. te yéen sax daf leen tàggat ci topp kilifa. topp kilifa mu ngi noonu. kon su defee kon lii Maulana Cheikh Saïd hmm. daf koy jàngale guddi ak bëccëg xatta feebar bii nga xam ne moom la tëdd tey ba mu yóbbu ko tey alaxira hmm. feebar boobu bokk na ci fan yam ci njëkk a tëdd hmm. yoor yoor toog nañ ci biir néegam ak soxnaam muy laaj soxnaam ne ko ndax man xëy naa nuy ji suma yaay allahu akbar yaa fa ture ne ko ah kay nuy ji nga ko nuy ji nga sa yaay de ndeysaan mu ne kon alhamdulilah waaye su fekkoon ne nu ji yaayam keroog su fekkoon ne mënut a dem sax danañ ko jàppoo dem mu di nuy ji yaayam donte la tolluut feebar ba tolluut fan foofu kon yooyu yëpp jàngale la boo xam ne nii mm-hmm. ba ilaa yow mi diin jàngale bi du fi jokk du fi jóg mu ngi noonu kon nii la Mawlana Cheikh Seydi yaa imaam yow du ma dikk ak yow foofu kii yaatal na yow fi may dikk ak yow mooy euh, ci fi muy waxee ni euh, fonkal sa fonkal sëriñub jàmbur donte sax fonkul sa sëriñ te xam ni ka baaxal sa sëriñ <coughs> moo ba moo ko baaxal <coughs> mhm. foofu laa bëgg nga indi nga dikkal ma ci eh, comme boo gisee muy jàngale fonkaleen sëriñu jàmbur yi mhm. ndaxte ki baaxal sa sëriñ moo baaxal sëriñu jàmbur mhm. loolu doy na jàngale moo du mbay loolu nag góor yàlla bu bëri ñàkk àgg fa yàlla fu mu àgg moo tax ne duñ mën a waxtaane noonu da ngay gis kilifa di def gàmmu soo fa tuddee beneen sëriñ sëriñ rek ñu nangu seen micro wala ñu xam ne ne boo ñëwee doo waxtaanee seen sëriñ rek. Mhm. duñ la duñ la sa duñ la woo mhm. waaye nag góor gi mhm. fu ko yàlla àggale mënuta wax te du tudda góor yu baax yi. parce que ne nit ñi. képp ku baax ak góor yàlla yi. yéen a bokk ndey ak baay. yéen a bokk benn yaram bi. góor yàlla yi ñoo bokk benn yaram ñoo bokk benn ruuxu mhm. si jàngale rek ba nga xam ne ne góor gi fu mu àgg fa yàlla moo tax ne mu am yëg-yëg si góor yàlla yi mhm. loolu àgg fu mu àgg àgg bu àgg fa moo waral loolu amoon na benn sëriñ mhm. bu tuddoon si Fuuta Fale ku tuddoon Ceerno Abdourahmani Banaaji mu doon jàngee Qur'an si këri Serigne Touba radiyallahu taala anhu si Ahmad Bamba bi fay jàng nag taalibe dóor ko yar taalibe bu ko dóor yar kooku ko makkal alquran la mhm. Serigne Touba bu xëyee génna mhm. balaa muy def dara dañ koy jox ndëkki mhm. ndëkki bi mooy lan dañ koy jàngal alquran nga gis ko yaram bi fees moom se Ahmad Ahmad Bamba bu ñu doon jànga al alquran su ko déggoon yaram bi dafay fees dafay mel ni ku néewi waa ji nag keroog bu mu dooree keroog bu mu dooree taalibe boobu mu ñëw suba jànga Serigne Touba yëgu dara mu jànga Serigne Touba yëgu yëgu dara ba nag mu mu sukk si roon mu ne ko góor gi lan laa def mu ne ko taalibe bi nga dóor Demba. Mhm. waliyu yàlla si waliyu yàlla yi la. gis nga yar bi nga ko dóor ni mhm. Serigne Touba woon ko woon gannaawam bi yar yar bi mu dóor taalibe bi yar baa ngi maak si yarami Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba mu ne ko góor yàlla yi kenn lañ. képp koo laal rek si ñoom ñëpp nga laal moo tax ne góor gi boo gisee muy tàgga ñooñu moom ak ñoom ñëpp ñoo bokk benn lañ macha allah su ko defee rek dañu digtal vidéo bi ndaxte waxtu wi xoj nañu waaye vidéo bi la dinañ ko seetaan dellusiwaat bala ñuy daal di rek tàggatoo ñu digtal leen vidéo bi dellusiwaat ci jotaay bi xusoo fa kuloo sumal jëy ma saloo fi silsila suma bi silsila sarwa safoore sila du loolu lay waxoon waaw ma naka la yàllaa ñàkkee fulla bay jël ceenu juróom-ñaari xasabu da ko xeewee jaamam te te bu ne ko nuus dootul yëngatu ndax noonu ngeen foog su ma sëriñ Cheikh Walu ko biir tëbale nga daal mu ne ma déedéet ma ne ko naka la mu ne juróom-ñaari jikko yu ñaaw la yoo xam ne soo xasee def yàlla jéppi na la foog nga dugg safara mooy juróom-ñaari su xasa bu ceen yi la ceene yaa ceene sa bopp yóbbu sa bopp safara dootoo wëññeeku mu ne juróom-ñaari jikko la soo xasee def rek pare nga dootoo mën a fexe ba dem ajala safara rek su ko defee nag léeg ñu ceene nag waaye nag waxoon naa njawar ne safara boo xam dañ koo ceene muy xiiru amul ci alquran foo na am na fu ñëw wahiya safir moom safara ba mu ngaa xiiru suñ ko ceene wut hay am safara boobu kas almet du ko taal safara boobu day tàkk ba pare du dund waaw day takk de dund waaye su ceen gi dogee rek ku jot sànk la moo tax alxuraan neexul xam waaw waaw barikàlla mbokk yi ñu ngi ñëw eew ndax ñële jant baa ngi leen jam baleen ñu àq de baa leen ñu àq mbooleem fu waay ñu ngi laa séen bi ñoo tànt tànt bi am na ku ma wax ne ndax tànt bi dana fees ma ne ko lii bi ci da lii nekk ci biti dana toll ni tànt bi gàmmu gi noonu laa màggee tànt bi yem na ñëpp ren waaye wallaay li fanaan ci biti yem na li li ci biir tànt bi te déwén nit noonu laa def suñ tàntoon bayee bi ba mu jeexit nit ñi des ci biti boo woowee nit ñi bayee leen seen bopp wax leen yàlla ba leen wax sa bopp gënoo leen ba di wax seen bopp mosuma wax nit suma bopp mukk toog da leen nett li man nangam du ngeen ko dégg loolu am mukk bëri na lu Cheikh Kabir wax nit a koo nett li waaye du man nit a koo nett li wallahi laa sim li Ibrahima doon wax nii carte boobu bi ñëwee Pikine moo génne carte bi woon ma ko ma delloo ko mu ne ma seet la carte bi ma ne ko déedéet mu ne ma nangam ak nangam ma ne ko waaw ma seet ko ne ko waaw gis naa ko carte ba ama ah, ci soxla xama ci ba ñëwee wéli ngaram moom moo ko nettali dafa xew que gis na ne bi ñu àndee maag moom Maroc ba ñu wëññeeku masul téye benn saak saak yi yëpp laay amee ci suba ko suñ dogee weeru ko neexul ma dem jëndi lu mu lekk maa moom bañ ñib si xam na lu mu tontu woon lu mu waxoon wéri ngaram dégg nañ ko waaye déglu ko mu ne dem nañ Maroc waaye Ibn Arabi Shah Ibn Arabi Shah moo ëpp mbooloo xabru Cheikh Ahmad Tidiane Chérif te taalibe la xoon ngeen góorgóorlu foofu la yem waaye xam naa la moo wax gis na coono bi ma na ci moom moom laay nattale nëbbutu gi mu nëbbutu xam naa foofu la ñuy jeexalee euh, ñu waxtaanee ci loolo nëbbu gi mu nit ñi boppam di ñu wax yàlla kii fi fii mu ngi koy wax musuma waxtaanee sama bopp musula am nit ñaa may nettali waaye man musuma nettali sama bopp ndax gënuma leen ci ni mu waxee mhm. ci ci ngir ngeen dégg wax ji mhm. euh, lan la daan jàngale foofu ni ko imaam Aboubacar Thiam waxee rek mhm. sëriñ bi alxuraan la buy dox alxuraan la buy dund alxuraan la buy jàng boppam di jàngale boppam alxuraan moo ñu wax ne waqul lahum fi anfusihim qawlan baliig taalibe nit jaamu yàlla yi la yaakaar ba ñëw pare pour gindikoo ci yow mm-hmm. bu ñëwee waxul waxal lahum ñeel jaamu yàlla yooyu mm-hmm. fii anfusihim ci seen jëmm yi nga leen di jàngal yàlla jàngal leen seen bopp xawlan ba liix jàngale bu leer nañ mm-hmm. kon Maulana Cheikh Seyd bu ñëwee boo ñëwee mu jàngal la boppam wala mu jàngal la waajuram dafa mel ni mu ngay wanewu boppam te xam na ne bu la jàngalee sa jëmm ji jàngal na la boppam moo tax bu ñëwee du la wan du la joxoñ boppam olof nag ne baaram baaram du joxoñ boppam mm-hmm. moo tax alquran bi mu doon moo tax muy mu nekk muy jàngale muy jàngale ni alquran di jàngale mm-hmm. alquran mu ne bu nit ñëwee ci yow waxoon ko yonent bi ne ko bu saxaaba yi ñëwee ci yow sukk mm-hmm. pare pour xam yàlla pare pour gëm la dugg ci lislaam jàngal leen seen bopp wa fi anfusihim afala tubsiruuna mu ne xanaa ci seen jëmm yi du ngeen ñi fa gis ñun yàlla xanaa yàlla du ngeen ko gis seen jëmm yi xanaa li xam bu leer bi du ngeen ko gis seen jëmm yi kon boo amee seexul murabbi sëriñ bu mat sëriñ hmm. soo demee rek moom ci sa jëmm ji la lay jàngalee sa bopp nga xam sa bopp ku hmm. xam sa borom yonent bi ne ne ku xam sa bopp xam sa borom ku xam sa borom xam sa bopp looloo taxoon sëriñ bi façon jàngaleem yëpp loolu lay doon hmm. day dàq dàq boppam dégaase boppam indi Cheikh Abou Thiam jàngal la Abou Thiam hmm. su ko defee boo déggee rek gestu gis xàmmee lépp xàmmee lépp yaa yaa Cheikh ñu ngi waaj a jeexal tey bëgg naa nga am loo ci sof ci rek euh, ni nuñ koy wax woon boppam maanaam nëbboon boppam dencoon boppam di ñu waxal yàlla te di ñu ku ñëw rek moom mbiru yàlla la lay wax bëggulaa wax sax daraay boppam. moo tax mu am lu mu am. macha allah c'est Moustapha Kébé di la ndokkel foofu rek. Cheikhu Tidiane. Mm-hmm. mooy sëriñi sëriñ yi. Mm-hmm. radiyallahu mm-hmm. moo ne taalibeem yi. man allamaka ala nafsihi faqad garraka. Ah, boo ñëwee si sëriñ mu lay wonal mu lay mu won boppam mm-hmm. mu lay won boppam si mm-hmm. lépp di la won boppam daal mm-hmm. kooku kooku kooku nax na la war na la daf laa war kooku war na la man dallaka ala al amali boo ñëwee si sëriñ mu lay dem dem leen si tool yi dem leen si lii isi leen lii isi lii def leen mu ne kooku aha faqad sonnal na la mu ne boo demee si sëriñ wa man dallaka ala allahi fii nafsika sëriñ bu la jàngal yàlla si sa jëmm ji mu ne kooku kooku mooy waa gi nag mooy noonu moo tax ne moom soo ñëwee du la laaj xaalis tamit du la mm. woon boppam mm-hmm. parce que ne la su boppam même nit ki mun na laa ñàkk woon boppam. Hmm. waaye biheef am bu moo biheef. Hmm. da ngaa xam ne ne hmm. kii dafa bugg nga xam ne man. may kan may diw man may diw. waaye góor bi yëpp bokkul si loolu. da ngay ñëw nga gis ko mu ngi sol simple easy. simple yaram. comme mu ngi sol rek xaftaan rek. ak yére yu woyof oyof. dox tànki neen si si si biir étagère bi. xar yi sax di leen di leen jox lekka. macha allah wallahi wallahi kon nag góor yàlla noonu lay mel. loolu yëpp boo gisee mu koy def day nobbu boppam. Mhm. waaye gis nga nag ñetti wali yàlla ñoo am. Mhm. Mhm. am na wali bu nekk wali ba pare. nobbu boppam. waaye kooku su deeyee nit ñi dañ ko xam. am na wali bi nga xamante ne moom doon na wali yu ba pare. nit ñi xam nañ ne wali la kooku moo gën a am njëriñ. parce que ne nit boo nekkee waliyu nit ñi xamul ne yow nekkuloo waliyu mm. kenn du mun a ut si yow dara waaye nga doon waliyu be pare nit ñi mm. tam di ut si yow dara mm. kon yow yaa gën am njëriñ keneen ki nag doon na waliyu waaye xamul ne waliyu la waaye nit ñi xam na ne moom waliyu yàlla la gi nag xam nga li ko yàlla may hmm? moom nit ñi ñoo xam nit ñi mm-hmm. nit ñi mm-hmm. nit ñi <laughs> mm-hmm. naa la bu waaw nit ñi ñoo xam ne moom waliyu yàlla la waaye moom wonewul ko moo tax ne nit ñooñu ñu mm-hmm. dem am si moom ngir jëriñu ngir njëriñ jërëjëf jërëjëf yaa imaam euh, lu ñuy waxee rek wateef li yegg na ci ndong li ba ñuy tàmbali waxoon naa leen ko euh, sëñ bi jagleel ko ay waxtu doyul ci waxtaane yi jaar jaaram ak i xar baaxam buñ ko doon waxtaanee at duñu ko jeexal bu ñu ko doon waxtaanee ba keroog bis duñu ko jeexal dañ ci doon jéem rek euh, ci loolu nag Eye Africa TV ni ki ni mu leen koy defalee ba sëñ bi dëddoog léegi suñu programme yëpp la ñu rek daal di arrêté ngir rek jox cër sëriñ bi ndax sëñ boobu sëñ bi yelloo na lu mel noonu te dinañ continuer waxtaan yu mel noonu fii ak euh, ayu bés su ko defee rek dinañ am beneen waxtaan boo xam ne dinañ ko jagleel ki nga xam ne rek mooy xalifa bi ndax moom it dañ ko war a jagleel ab bés waxtaanee ko muy rek Cheikh Basirou Kebe moom it euh, duñ ko cof maanaam duñ jël duñ ko cof nañ ci waxtaan bu baax a baax su ko defee dama lay bàyyi nga tàggoo waaye su ma sañoon booy tàggoo nga tàggu ci alpulaar su ko defee nag suñu mbokk alpulaar yi euh, man ci jëriñu ci sa tàggoo bi ngay tàggoo noonu daal laa koy bëggee yaay maam aduna politique gis nga politique nit ñaa yàq baat baati baati politique mm-hmm. waaye politique dafa yàgg mm-hmm. yàlla moo njëkk a def politique mm-hmm. yéeféer moo amoon innahum yakiiduna kaydan wa akiidu kaydan politique mooy siyaasa ah. kon alhamdulillah rabbil alamin bo ma waxee ne naa ko wasi pol mhm. man pol la gën mun ala kulli halin eh, mi yetti allah no feewi en jetti allah subhanahu wa taala nde o tagi en o waɗi en juulɓe o waɗi en tijanenkoɓe kadi o rewni en e juuɗe serenɓe men moƴƴuɓe mhm. en ndewi e seeremɓe moƴƴuɓe ha noon kawruɗen o ceerno jeyaɗo allah woni cheikh saïd oumar kebbe alhamdoulillahi ko keɓɗen e makko ko mhm. kadi sankare makko nde eɗen jaalande islam fo fof mhm, mhm. eɗen jaala mo tijaniya fo fof mhm. eɗen jaala fo fof e hay hanki e sankare makko he e dental madina gounas ceerno alhaji alhaji ahmad tidiane ba radiallahu taala anhu e, ɓe o joɗɗini ɗo e banjul ɓe ngari ha toon ɓe joddima e men ɓe kaali ko moƴƴi kadi ɓe mbi ceerno o tini ɗum bun salim e hoore mum ɓe mbi o noddi wondema ɗo kadi en jii enen fulɓe fof en jii nde bun salim arnoɗo duuɓi nayi caggal o yehi ha galle ceernajo o mhm. ceernajo o kadi cheikh saïd oumar kebbe mhm. o immima ɗo o yehi ha daka madina gounas o yehi ha o yi ceerno ahmad tiyane ba ceerno ahmad tiyane ba yamiri yoɓe gudi tan rawda alhaji mama saydou radiallahu taala anu mhm. o nanne toon machallah su ma ko waxee si olof baax wax ji baax na <laughs> noonu lañ ko bëggee woon ala kulli haalin mm. ceerno ceerno ahmad khalifa xalifa jadanal gunasiya mm. o yamiri yoɓe ngudi tan mm. ceerno eh, cheikh saïd oumar kebbe yo o natto rawda to nden kala garɗo ziyara katta tan koɗo damal ɗo kono noon o wii koyo o naaɗa haa to nderto après kadi ceerno neli ɓe neldi deftere ceerno ahmad yan neldi deftere tasfiyatu suluk nde wiye tasfiyatu suluk a faami nde ceerno mama saydou waɗi eh, faami charhu mhm. o wi yo nde hokke cheikh saydou omar kebbe kadi o immi ɗon kadi mhm. o wi yo cheikh saydou omar kebbe nawe haa to daka to ɓe mo haa to daka to ɓe gartirimo ɗum ko jaɓande ko jaɓande yimɓe allah ɓe tan machallah wallahi wallahi ala kulli haalin en mm. beltima no fewi en <laughs> jarni foof inchallah jërëjëf yaa imam eh, seigne moustapha waxtu wi eh, jotna lan ngay tëjee lan ngay mooy doon say kadduk tëj jërëjëf Euh, Garmi jërëjëf jëf Imam Abou jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan ay Africa TV ñu ak yéen ci góor gu tedd gi nga xam ne mooy sunu wasila di Maulana Cheikh Alhaji Seydou Omar Kébé di benn jant boo xam ne moo nit àddina bi yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a yéegal ay maxaamam di ñaanal xalifaam di Cheikh Mouhamadul Bachir Seydou Omar ko wax ne ko ñu ngi koy ñaanal saa su ne guddi guddi ak bëccëg di sàkku ci moom ñaan di wax ne programme bii nga xam ne ñu ngi ko doon def ci waajuram tey eh, wax dëgg yàlla nekk na koo xam ne ku neex a waxtaane la waaye ku naqadee waxtaane la mm-hmm. ñu koy nuyu di ko ziyaare moom Cheikh Bachir di nuyu mboolem taalibe Nayl Huda tey wax ne Eye Africa ca kaw ca kanam ñu leen di sant di leen gërëm bu baax Lamine wax na ma ne incha allahu taala semaine bi yëpp mm-hmm. ngeen bàyyi ko xel yéen waa yéen waa Nayl Huda yéen bokki jullit yi mm-hmm. ngeen bàyyi xel télé bii di Eye Africa jokkoo ak Madinatul Anwar ca Maolana Cheikh mm-hmm. ca doom ja tedd jafa tey nga xam ne mooy toog ca jalba muy Cheikh Bachir Seydou Omar Kébé mm-hmm. te incha na yéene Cheikh Bachir ci boppam mu ñëw ci programme bi teew fi moom mi nga xam ne mooy ndimbi léegi moom tamit mu am fi ay kàddu ñu barkeeloo ko ndax dañ ne loo xam-xam demba rek sàmba gën laa xam demba mm-hmm. kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di leen balu xaq te di leen baal àq bégte rek lu leen kontaan loo moo taxoon ñu toog fii lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu dëppoo ak la am mm. alhamdulilah su fekkee wax nañ fi leneen lu dul loolu ah, wax dëgg sopp góor gi moo tax waaye yaakaaruma ne wax nañ fi leneen lu dul loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf boo bëggee boo amee ak kooguk ndox nga bëgg jàpp bëgg cee sangu bëgg cee naan jëlal kook soosu nga dénk ko borom géej bu boobaa daa sangu daa naan te daa jàpp boobu Cheikh Omar Kébé mooy géej noo ngi koy jaalewaat bu baax ci turu Eye Africa TV bokk taalibe yëpp rawatina suñu kalifa bu bees boobu di Seex Basiiru Kebe dinañ waxtaan def jotaay boo xam ne ngir moom kese la ngir waxtaanee ko moom euh, góor gi waxtaan nañu moom ci jaar-jaaram ak yëpp donte que mënuñu woon a matal lépp waaye defe naa ne jéem nañ ci yéen ñu dugg ñëpp ñoo ngi leen di gërëm euh, di leen jaalit ci lu ñu bokk yéen ñi bëggoon dugg te dugg leen noo ngi leen di it euh, wu ci loolee xam nañ ne fi ngeen tollu euh, sëñ bi moo ko rek daal di waral di gërëm ñëpp ñu jàpp ci lile ba mu rek yemb euh, ñëpp di gërëm techniciens yi caméraman yi ku lim tur juum waaye gërëm naa leen yëpp yàlla na yàlla fay ci borom bés bu ñu jagleel lii te moom am na pay te gëm naa ne dinañu fay jërë ngeen jëf buri buri mu ak muccule saa borom am na ko yàlla na ko def ci yéen jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm